yàlla na ko yeggale ci sagoom ba sumb yeneen ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ko ñaanal bu baax Serigne Cheikh Jëmm Fall mi fi wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla mu yàggal ko fi bu baax te wéral ko ba lim naan ngir liggéeyal ko maam Cheikh Ibrahima Fall lépp yàlla na sottee fi loxoom ba mu sumb yeneen naal te ànd ko ak moom mbokk yi ñu ngi ñaanal bu baax mbooleem sëti Serigne Touba yëpp di ziar mbooleem sëti Serigne Touba yëpp waaye di ñaan yàlla euh, kenn ku ci nekk noo ngi lay ñaanal suñu borom defal la yàgg ak wér waaye di ziar baax taalibe yi nga xam ne saa su ne dañoo safoo seen télévision Lamp Fall seen jotaay bii di jotaay jotaayu murit ñu ciy waxtaane Serigne Touba ay mayam ak i sañ-sañam ak i jagleem tey nañu dellusiwaat ci jotaay bi di bu baax ci géej gee dikk ci jotaay bi te xam nga rek xat-xat yi jamono waaye lépp rek jëm ci lëggeel Serigne bi di ziar bu baax mbokk yi nga xam ne saa bu di jotee ci waxtu wi dañuy bàyyi xel di ziar bu baax a baax sunu invité yi nga xam ne tey ñoom lañ dalal defe naa ne kenn du leen présenté ku ci mel ne sëñ Mame Thierno Mar mel noonu baaxil xadim moom jaaroon na fi jaaraat na fi tey waaye ku ci mel itam sëñ am di ñing moom itam doon koo xamante ni boroom xam-xam la di waxtaane Serigne Touba waaye sëñ Mouhamed waa Waadaan Diouf mën nañoo wax sëñ Mouhamed Jéeri Waadaan Sogo ndax moom lañ ko dippee ñu fas yéene waxtaane tey sëñ Touba ay mayam ak i sañ-sañam ak i jagleem xam naa dañuy daal di dalal sunu gan yi waaye ñi nga ànd ak sunu jànkati xaside yi nga xamante ne bii ñoom it macha allah jàmbaar lañ di yëkkati xaside yi Serigne Touba yi ñu fas yéene ñoom itam bu ñu ba ci kanam tuuti incha allah ñu dugg ak barkeelu itam lenn ci bayti ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim asalaamualeykum sëñ maam Thierno Mar. waaleykum salaam wa bu baax tey nuyu mbooloo mi. Mm-hmm. tey jiital ci nuyoo bi ni nga ko waxee rek yow euh, moom mi nga xam ne moom la suñu borom def tey muy toog jotaay suñu Tuubaa. Mhm. Euh, di ko ñaanal bu baax na mu yàgg fi loolu te wér. waaw moom sax yàlla daa def moom moom fekke naa ko boo ko ñaanalee ne ko yàlla nga fi yàgg te wér du wax dara. Mhm. waaw waaye boo ko nee yàlla nga am ngërëmal suñu Tuubaa wala li nga bëgg ci liggéey suñu Tuubaa yàlla nga ko am. Mhm. day daal di bëgg loolu di ree. te yàlla amiin rek. kon moom ndax day faral di wax naan dama dégg mu naan adduna euh, moom yàgg fi amul solo def fi fi war a def rek waaw ah, def fi li nga fi a moo moo am solo moo am solo kon moom waaye teewul nag ñun danañ ko ñaan mu yàgg fi waaw ndax ñun mooy suñu mbégte mhm. ndax suñu tuwi daa waxoon ne yaa rabana biir mun taxal bashir yi kulil ya mhm. fi daarin zata fiiri waaw suñu nag euh, la suñu saa saali waxoon rek mhm. ay waxam moom dana am fu mu jublu waaye ba wax bu ay saalix lasi yu kamilul amal bañ ko waxee sëñ Saliou da ko naan sa law su wax moomu ko sàcc de kon sëñ Tuubaa moom am na waaye teewul moom wax ji rek day day delluwaat ci waa këram mhm. moo tax bayit boobu day teg ci la wax sëñ Cheikh Mamadou Mountakha mhm. waaw yaa rabanaa bil muntaxal bashiri mhm. kun li fi darin sa tafiri moo tax murid yi moom naka jekk bég nañ waaye nag na na na yi nag préparé waat ngir bégaat mhm. waaw na gaa yi waajaat ngir gën a bégaat ci sëñ Tuubaa waaw ndax leen si jamono moom suñu waxu moom mhm. waaw yaa maalikan malak tani zaman yi mhm. suñu Tuubaa moom moom jamono kon day ñaan moom Mamadu Muntaxa mu yàgg fi lool suñu borom tàbbal ñu ci biir mbégam moomu ak ñi ñi nga xam ne murid yëpp naw nañ ko ci kenn sëñ Tuubaa ak gëm ko ak doyloo ko ak bàyyi faale waaw moom moom mooy tegtal moom day tegtalee ab murit waaw si mhm. mu daxa day tegtale ab murit mhm. loolu moom lu lu may wax murit yëpp ko xamandoo moo tax njàtt sori mhm. waaw moo tax jot kon daal yàlla fi yàgg loolu te wér waaw te loolu mu ne ku dem ñu dem ku demul ma dem ah. waaw ñun daal bu ñu fi bàyyi waaw waaw nañu nañu yóbbaale <laughs> tubaarkalla kon loolu xam naa loolooy nuyoo bi jërëjëf waaw loolooy nuyoo bi sëñ Mame Thior bëgg bëgg lool ci tubaarkalla danañ danañ dellusiwaat euh, sëñ Jéeri euh, bismillah ci nuyoo bi وصلى الله تعالى على سيدنا وعلى محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما ورضي الله تعالى عن شيخنا القديم زين النهج الخويم وعن بابه باب المريدين أبي الحسن الشيخ إبراهيم فال وعن ودده الذي لم يفارق معه في شهاره وأخرى في كباره أبي عبد القدوس الشيخ إبراهيم فاتي وعن جميع خلفائه الصادقين وأهل طريقته أجمعين am naa damay sof ci li maam Thierno wax rek. Mhm. di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko. Mhm. waaye di nuyu njabootu Cheikh Ibrahima Fall mhm. di nuyu njabootu Cheikh Abdou Lahad la ci Serigne Sidi ba ci Xaadimal Mustafa di ci beral nuyu sama yaakaar tey ak ëllëg Xaadimul Maahi. moom Cheikh Abdou ñaan sunu borom guddal fanam tamay ko wér. nin koy waxee rek Sëñ Tuubaa on jubatan li kullil kaw ni la. muy kéemtaanu bépp waxtu wu ne. waaw mooy mooy mooy sëñ Tuubaa hmm. waaw lépp lépp léppam dafa dugg ci kéemtaanu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kulliyati mojizatun te axarat ci hmm. ndoxam ci lekkam hmm. ci naanam ci aw dëkkam ak nitam waaw amut amut lenn looy xool ci moom te du kéemtaanu yonante bi sallallahu alayhi nag daa doon koo xam ne yàlla da kaa wàcce woon ngir mu doon nit koo xam ne nit ku complet lay doon niru nit ñi waaye la mu amoon lépp ci luy kéemtaan da kaa rafaatale Sëñ Tuubaa waaw mm-hmm. da kaa joxaat sëñ Tuubaa mu indi ko mm-hmm. moo tax sëñ Tuubaa ne mu'jizatun tabqa li usni xayri mm-hmm. ay xarbaax yu desoon la ci yonent bi saa saa mu jox ko waaw jaajëf ah moom mel na ne day nuyoo ànd ak ubbi de bismillah sëñ Amdi aouzu billahi min shaytani rajim bismillahi rahmani rahim tey alhamdulillahi alladi xalaqa samawati wal ard wa jaala zulamaati wan nuur summa allazina kafaru bi rabbihim yaadiluun هو الذي خلقكم من طين ثم خلى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم شركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ورضي الله عن شيخنا أحمد الخديم وعلى قدوتنا العظيم مام شيخ إبراهيم فعل شيء بارك سخنا Fatim Mbakke fawdilu wa kun muizana min al wabai wa kulli nadilin min alsamai wa kulli ma yaduru fi l ardi wa ma mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu ci nuyoob jullit ak mbokkum jullitam mhm. di leen nuyu ci nuyoob taalibi ak mbokkum taalibi mhm. di jiital ci nuyoo bi comme ni ko suñ kilifa yu baax yi jiitale muy asayxu Muhammadul Muntaxa Mbàkke mhm. di ñaan suñu borom yàggal ko fi ba naal yi mu am yëpp mu mat di ñaanal a Cheikh Seydal Maxtaar suñu borom yokk ay leeram di ziare bu baax soxna maam Faati Mbàkke mhm. xaar yàlla mi nga xam ne euh, ci ndigalam sax lañ ñëwee ñëwee ci jotaay bi mhm. di ko siyaar bu baax di ko ñaanal suñu borom gën ko fee yàggal ba yéene ji mu am ci liggéeyal ko mu Mouhamadul Fadal mu def ko mhm. di ñaanal waa njabootu sëñ Aline Diouf Lambaye gépp nga xam ne ñooy suñu buntu ci kër sëñ Tuubaa ci jiital sëriñ Xaadim Diouf mi nga xam ne mooy suñu buntu ci Cheikhul Xaadim di ziare borom xam-xam yi nekk ci télé yëpp ak borom kër gi sëñ Ibrahima euh, sëñ euh, Aline Cuun di siyaare borom xam ne yi fi nekk yëpp ci mm-hmm. loxol sëñ Xaadim Njaay Kayaar di la ziar bu baax sëñ Maama mm-hmm. di rafetlu bu baax ci dalal gi ñu dalal di siyaar yi di am mbégte lool bokk ak ñoom jotaay bi maam Cerno mm-hmm. Maar ak sëriñ jiri euh, waa daan Diouf jërëjëf sëñ bi tubarkàlla jërëjëf sëñ Amdi jaajëfal bu baax baax sëñ jéeri <coughs> ak sëñ maam Cerno Maar ci nuyoo yu am solo yi nga xam ne eh, nuyo nañ ko sëñ maam Cerno xam nga sëñ Mamour. waaw. Euh, moom dafa ubbi waxtaan wi. waaw ndax ay murid la rek man lay wax man moom. waaw ay murid moom. Hmm. mooy mi noonu baaxati man noonu laa ko jàppee. moom la ndax xamul tax doon ko mooy. Hmm. Euh, suñu toog daa wax ne. Euh, dafa am bis borom wóolu bu ba ma ñëw mu ne ma. Hmm. du ma ne ko Mbàkke mu ne ma. li nga jaamu li nga ma jaamu liggéeyal ko yent bi. maam duy naa ci mulku ak ngëlëkoot. waaye fees na dell ba def ndax dafa da defa des na. xam nga loolu moom kenn koo xam ne mën ngaa jaamu yàlla lu fees mun ko amut waxuma rek di fees ma la ko mu ne ko li waaw ah, li nga jaamu yàlla liggéeyal ko yent bi hmm. maanaam fees na mun ko am dama koo duy mun ko ma la ko mu fees te des na te des na waaye des gi xamuma nu ma koy def hmm. suñu tuwaa nee na ma delloo ko ko daan na ko def ko nora soob mu ne ko dinaa ko def ci niir yi waaw ba àdduna yi tukki ba biir àjjana képp ku ñu lay waxtaanee ak fu ñuy hmm. jàngee sa xasida yi ma ko tuur di leen ko jóor ba keroog kon loolu loolu loolu mooy njariñal man fi ne émission jaraay murit faaw gaa yi di ko bàyyi xel maanaam murit yi nañ xam ne lii mooy émission maam Cheikh Ibrahima Fall lii mooy émission sëñ daam hmm. ñoom bu ñu ñëwaatoon lii mooy seen émission ndax ñoom ci waxtaane sëñ Tuubaa ak di ko bëgg ci lañuy dox hmm. Cheikh Issa Diène bi sëñ bi demee hmm. fu mu dem bu jotaay boobu jeexee dem ca beneen bi sëñ Tuubaa daf dellu si jigi dafa ne Iisaa mu ne ko am mu ne ko Iisaa ci loo nekkoon mu ne ko Mbàkke ci lii nekkoon daal koy wax mu ne ko moo tax day diir li ma nekk ci géej gi fu ma toll malaaka yi dañ may topp bul fàtte Iisaa bul fàtte Iisaa bul fàtte maanaam Cheikh Issa da koo fàttalul comme lii ñuy def ñun duñu fàtte Sëñ Tuubaa fii nag jotaay bi fii ñu ngi ci fii ñu ngi koy def fi mu ne doo dégg murit bu xiif doo dégg murit bu mar doo dégg murit bu feebar te barke Sëñ Tuubaa dañuy xiif dañuy mar dañuy feebar ndax ay mbir waaye buñu tàmbalee xam Sëñ doo dégg kenn ku xasanu doo ko gis waaw léegi loolu dafa war loolu mooy li war ndax Sëñ Tuubaa moom léegi nag nit ki bu la yenn saa yi faaw mu wala dara am xar sax boo ko defee ci gétt gi du du du du moom mooy wax ne fii nga may def nii nga may def danga may rey danga may dem rek danga may jox ma lekk day toog rek hmm. bàyyi boobu bàyyi bàyyi bàyyi la boobu kon ñun noonu noonu la ñu war a dundee sëñ Tuubaa te jotaay bi mooy jotaay murit hmm. mooy jotaay bi ñuy waxtaane sëñ Tuubaa hmm. te boo gisee nag may la mooy minalul baaxadim ah. mooy minalul baaxadim sëñ Tuubaa bi ko suñu borom waxee loolu da koo laajat da koo laajat ndax nitu yàlla bu nekk da ngay laaj sa borom daan na ko ana lan nga bëgg sama ñooñ di la ko defal ndax loolu nitu yàlla day yeewu ndax day xam ne yàlla mën na laa digal sànga waaye am na loo xam ne bis bis maanaam ab denc lay doon ab denc Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif laajoon na ko suñu borom mhm. mu ne ko salaatul faatiha lu am doole la ci ñoom mhm. waaye suñu tubaab nag bi mu nee sama borom dama bëggoon nga wax ma samay taal lan nga gën a bëgg mhm. ñu di la ko defal waxu ko julli waxu ko koor waxu ko asaka waxu ko aj makka dagoo ne ñu di la waxtaane te li ci gën a yéeme mooy suñ suñ tubaab wax na ne laataa mu may tontu dama ko ko laaj mu noppi ab diir ma ma ko ko mu noppi ab diir ba ma jàpp ne bu doon koy fàtte jàpp naa ne dana fàtte waaw bi ma ko laajee ñetti yoon ci la ma ñu di la waxtaane sëñ Tuubaa nee na ma xam ne kon loolu yiw a ngi man lu ma leen lu ma leen yéene saa bopp laa ko njëkk yéene sëñ Tuubaa nee na kon xaaral ma waxtaane sama bopp balaa ngeen maa waxtaane moo tax mu jël minanul baax de waxtaane ci bi mooy minanul baaxal xadim minanul baaxal xadim nag baatu minanu yàllaa ko joxe baaxal xadim yent bi ko joxe fii mu jaati raxal max doom yent sëñ Tuubaa ko bind maanaam tur yi ñoom ñett ko seq tur ñoom ñu tax seq lu moo tax jotaay bi dangaa ko day fu ko ak day fu ko jaaru ko ñoom ah. dafa ah. ah. am jotaay boo xam ne yàlla ak yent bi ak sëñ Tuubaa am boo xam ne yàlla ak sëñ Tuubaa képp la waaye am na jotaay bu gën a yéem moo dañoo génn ci biti bàyyi ko ci biir ñoom waaw mooy ñett moo tax moo tax mi noonu baaxalit am ñett ñett yu bari yi moo tax sëñ jéeri tàmbali na waxtaan wi ndax oxo jóobatal li kulli kaw ni mooy sëñ wax ne fu mu mën nekk rek kéemtaan laa fa xam nga baatu moom la gars yi di bay war a bàyyi xel baatu ajab mooy may kawtéef lastu ashuku abadan fii kaw nii mm. jaaral ba diyan ajaban lil kaw nii musuma sikki sàkk ci ne man ak sama borom ñoo dëkk mm. te li gën a kii man mooy jawartu boobu suñu ci wax wax xasida gi bi mu koy bind néeg biñ nan néeg yàlla ci la ko bindee te suñ tubaa njaaram amoon na ñetti ñetti kër kër yàlla ak këram ak kër yent bi këram maanaam mbooleem ku ku ku ñëw rek fa nga dugg amul amul xaj seen chrétien bi xej yi ñoo fay dugg ay sëñ sëñ sëñ am solo joxateeg ñooñu nga xam ne ay xej lañ chrétien yàlla nag kenn ku yàlla sàkk ku fa mës a dugg amul déedéet amul boroomam rek dafay ñëw waaw kon suñ duwaa lu ko jiñ mooma xam nga loolu dafa kii man uh-huh. beneen bi gis na suñ membre ñun dafa am yoo xam ne dañ koy woyefal te dañ koy faral a dégg uh-huh. mais woyeful uh-huh. maanaam xaaral ma laaj ko sama borom loolu kenn du mës a dégg mu koy wax xaaral ma laaj ko sama borom loolu mu am yéen bi sax da daan toog ba ba maanaam ba ba nubu ba ñëw yéen mu soog am information waaye yéen bi du caaxaan de moom day a xam dara dugg ci néeg di gisee ak Jibril mbaa muy gisee ak yàlla déedéet sëñ Tuubaa lañu mës a déggee ci loolu mos sa ñaar ndax ndax sëñ Fallu am na bis sëñ Fallu indil ko fanweeri kaamel ak ñett boo xam ne ci moom la bind moom nga xam ne 33e kaamel bi bu ko sëñ Fallu bindee da koo indil sëñ mag bi sëñ bi daal di koy xool na ko fàllu mu ne ko mbàkke mu ne kaamil bi dey na na na ko suñu borom bindee ci loolu ma foosu noonu nga noonu nga ko bindee daan na ko ëpp pour yeesul man na sëkk daan na ko waaye ah, damaa bëggoon nga bindal sa borom benn waaye léegi yàlla moom fu ne ak kan la bañ koy bindal kaamil ak buñ ko ko bindalee fan lañ ko koy joxee loolu day yëm ñëpp sëñ Fall daan na ko moom day yow de soo ko bëggee doo ko fay waaye moom soo ko bëggee damay fay mhm. sëñ Fall da sëñ Fall sëñ na ko waa demal bind boo ñëwee danaa ko ko wax mhm. mu dem bind ba noppi bi mu demee ba ñëw nag lii ma la sëñ Alaaji Mbàkke moo koy di ci garabu Tuubaa bi mu demee nee na su suñu daal suñ ko xaaral ma laaj ko mu dugg ji bi daal di gën ko suñu borom nee na ana loo koy jëndee mm. nee na mu ne ko li ma koy jëndee mooy képp ku dégg saw tur mm. mooy Cheikhul Khadim ba àdduna tukki mm. bég ci dégg gi képp maanaam na safara daan na ko loolu kaamil bi tey boobu kaamil waaw sëñ Fall ko loolu laay jaayee kaamil bi kon ngi loolu loolu waaye néeg boobu nga xam ne sëñ Tuubaa fa la bindee fa la bindee jaartu moo tax mu ne jaawartuhu jaawartulaaha bi kitaabihi ilaa duxulil jannata moo tax suñ tuwaa suñ suñ sax day wax naan jaawartu mooy xaatimatul maqaaf maanaam dox bi suñu borom suñ tuwaa doon dox jëm ci boromam nee na ci jaawartu la jeexee moo tax suñ tuwaa bi mu dee jaawartu dajaa teg ahbabtu ahbabtu xam dañ ko miin waaye xasida gu garaaw ngi noonu fukki bayit ak ñaar la ah. suñ tuwaa nee bi ma eggee saa borom jiggi ji egg boo xam ne dooruma dooruma ko weesu mm. ca la ma ne ahmadou ana loo bëgg Ah, ana loo bëgg yow Ahmadu suñu tuwaan nee na ma ne ko ahbabtu rabbal alamin maal amini wal amin wan xaada zikruhul amin li kerkeli wa jasadi suñu tuwaa daa daa suñu tuwaa daa daa daan ne suñu borom ma ndax na ma kenn mosu fee ñëw mm-hmm. egsi fii ko ana loo bëgg te waxuma wax ci maqaama mm-hmm. waaye ana loo bëgg mu ne ko ahbabtu rabbal alamin yow yàlla yow laa bëgg bëgguma dara waaye nag bëgg gi damaa am kóllëre moo tax maal amini wal amin ndax yeneen sallam moo ma fi indi woon moo tax couleur gi dama koy sàmm waaye nag jibril tamit da moo tax ñëw di akadem moo tax dama koy bàyyi xel moo tax maal amin wala amin waaye nag bàyyi mu ba tey wan xaari zikri wala amin alxuraan itam moom nga ma joxoon muy sama ndàmpaay muy sama yóbbul dama koy dama koy topp waaye nag bëgg googu mën a bëgg yow yàlla bëggaale ko yenti ak ak ak jibril bëggaale ko alxuraan ak di ko fonk daana nag li kar kali ko sama jëmm ak sama ruu bëgg gu wér laa la bëgg kon kon dimension boobu hmm. dimension boobu hmm. la sëñ Tuubaa egg te kenn musu fa egg moo tax yàlla mu wax hmm. na man gën a bëgg ci mboolem mbindéef yi yéen di wax mais man la gën a bëgg ci mboolem mbindéef yi mboolem mbindéef yi suñu borom texel def nañ man lañ gën a bëgg ci ku dul man tabarkalla da danaa ñëw ñëwal damay daaneel xanjab laa bëgg a daaneel ndax xam nga xanjab kawteef kawteef mooy loo xam ne day day day adduna dafi ne baa dama xanjab boo xoolee soixante-quinze lay jàpp 75 mooy dund ak sëñ Tuubaa ndax daa waxoon ne lëxum war a dund waaye lëkkum lëkkum laay dund ndax jël na ci atam jox sëñ Daawar Fandoo mm. sëñ Tuubaa nag nañ ko bàyyi xel mm. bu la joxee benn at mm. day wecc ay at yu baree baree baree baree bëri ndax moom benn atam du at yi da koy ful waaye wàññi na fukki at ak juróom séddale ko ñenn ci mag ñi sëñ daam ci na ko doñ suul nga waaye li gën a kéemaan mooy dafa wax li kulli abdin min al qur'ani suratuhu waaye wa surati min kitaabillahi tanzili daan ne bépp jàmm bu yàlla bind am nga aw saar ci alxuraan waaye man sa saar man sëñ Tuubaa mooy suratu tanzil mooy suratu zumar zumar te li gën a kéemaan mooy sëñ Tuubaa saa bu bindee suratu zumar ci taysir wala yeneen xase da ngay dégg da koy riimale dundam bee xaqi daawuda wa xaqi zumari safi wa karim yaa karim wa amuri maanaam ci barkeeb daawuda ak barkeeb suratu zumar yaa suñu borom na nga sellal sama dund mm. kon loolu mooy tekki ne sëñ ajab la ndax baarum ajab dundam gépp on ujobatal li kuli kaw ni hmm. mooy tegtale suñ tubaa doon gum doon kii kon xëy na laa bëggoon daaneel waaye jotaay bi comme daa yaatu ah. damay bàyyi suñ jiiri ñëwaat da am di mu ñëwaatee waaw ndax suñ tubaa xam maamu barke suñ tubaa ba keroog àdduna tukki suñ tubaa duñ ko jeexal xam nga lu tax ñun suñuy bàyyi suñuy maam dañoo waxtaane ba xëy jóge fi barke dañuy nek ba juga jóge fi suñuy doom nekk juga ñu fi jógee suñuy sët na ci hmm. barke sëñ Tuubaa ba adunay tukki duñ du dañ ci waxtaane sëñ Tuubaa moo tax xam naa damay tënk nii ah. ndax du jeex bu eh. ñëwaatee ma am leneen lu ma leeral danañ dem si waaw ndax dafa bari yow tàmbalee goo sax eh. barke sëñ Tuubaa ndax bëgg mu yéeg te yéegagul dana ma am di labu bëggoon mu ñëw yéegal ko yóbbu ñu ca groupe bu njëkk ba moom bu la fekk see rek mbir mi day ñoon la waaw kon noonu la waaw xam nga waaw dañ ko war di ko waxtaane waaw ngir hmm. Euh, li mu jëfal boppam te kenn fekk ko ca. Mm-hmm. Euh, adduna boo ko mm-hmm. xool. Mm-hmm. yàlla ñi mu wax ci alquran ni ñoo ci gën ni wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma allazina anama allahu alayhim min annabiyina nga xam ne li jëfal suñ borom kenn da ko ci musta fekk ñi mas a ñëw adduna ñëpp yonent yooyu nga xamante ni ñoo ci gën li ñuy baax baax boo demee nga jàng Euh, masaalikul jinaan bi rek ah. yow ma asura da dégg ñu naa fukkeel ban bi ci leen jéggal kii ci leen jéggal kii ah. kon ku mës a rek am na lu mu def sëñ Tuubaa nag mooy ki xam ni dafa dund ak dundam ba mu jeex tàkk te mës ta def lu ko astaxfirullaa di fekk moo tax sëñ Bay Jaxate ni ko yaa set weles ah. mësulaa dox sax fa taq lu bon seetal ma ngir yàlla man mii taq bay tuubi kon defoo lu bon defoo lu bon mësulaa def benn bis lu warul ah, te waaye judul yow def na si def lu muy tuubi kenn mësta jox yàlla a benn bis rek dara yow daal di ni nag giñ naa ni giñ naa ni wax ji soxlawul tuubi daal di giñ naa ni giñ naa ni wax ji soxlawul tuubi uh-huh. gis nga bu fekkoon ni jaamu yàlla uh-huh. euh, dañ ciy may ay point muy vingt uh-huh. sëñ Touba moo ko moo ko dagg mumtaas vingt ndax fa yam kenn mënu ko wees tomb na bis ñetti tomb ci ñaareel mhm. tombaat yeneen ñetti tomb jël baaram bi teg ci dënd bi ci digg bi mhm. ni ñetti tomb yi laa siq ak yàlla ñetti tomb yi laa siq ak jaam bi yàlla lu mu ma digal def naa ko mhm. sëñ Tuubaa nee na ku mas a ñëw jamono am na lu mu ku mas ñëw jamono mas naa siq ak dara suñ borom waaye man lii num la dale ak bu la dalaat mu musuma dal lam yem xun yi zajrun wala waid moo tax mu ne ñett yi laa siq ak yàlla ñett yi laa siq ak jaam ñi jaam ñi lum yàlla lu ma digal def naa ko musuma def lu muy tere te lu mu dogal ci man neex na ma daan ni ñett yi laa siq ak jaam ñi musuma cee tooñ kenn mm. ku ma ci tooñ jéggal naa la mm. ten lu ma am bokk naa ko ak ñoom te lu ma am rek sëñ Tuubaa na bokk na ko ak ñoom moo gore waaw kon kon kooku kooku moo gore mm. nga xam ni euh, li mu defal boroomam amul kenn kenn ci àdduna koo xam ni mas na koo defal ba kon dañ ko war di waxtaane ngir jagleem yooyu nu war di ko waxtaane ngir ni lu nu am mooma ndax Moodu Bàmba li mu daj moo nu may nun li nu am sëñ Cheikh Thioro dafa wax ni wallahi law laahu maatanaa su kullihimo ala tariqati iblisi la si sama jaa mm. dogon ko nag sëñ Tubaa ñëpp dem sawar ndax bi muy ñëw jamono dafa fekk iblis takk nit ñëpp jëmale leen sawara sëñ Tuubaa moo leen dëpp te moom rek moo ko mën moo leen mën a dëpp moom rek moo moo ko dëpp te moom moo leen a dëpp ah kon dogon ko nag demam gii wolof nasaraan te kon billaahi ñëpp dem niiraan moo tax mu ni aju gi ngeen aju ci man moo leen tee tàbbi sawara hmm. doonte ni kon da fay jaar tam continuer àjjante duñ fa jaar dañ fay sax kenn génn ndax bi muy ñëw dafa fekk ah, ñu bi muy ñëw dafa fekk ñu ni ratt l'islam ci am néeg ah. ba di ko bëgg a rendi sëñ Tuubaa moo ko dundal mu yor ay tànkam di dox ba tey jii foo gis ci adduna jàkka taxaw fa barke Cheikh Ahmadou Bamba nan sant sëñ Tuubaa ndax budul woon ak moom du am moo tax baas yi ngay gis ci réew mi ku ney baas ak naa cérémonie officielle ak nangam nan sant sëñ Tuubaa koo xam ne julli la doon tere bu demut woon ñëw kon dara du baax dal la lasi xat sanna nii asira xayrul lasi yu yasirul asira nee na bi may dem dama doon yombali lu jafe hmm. kon lu nu am rek sëñ Tuubaa la bis dafa woo sëñ Abdul Karim Touré ba mu ñëw mu ni ko Abdul Karim kaay ma nettali li ma taxoon dem ci géej gi hmm. sëñ Abdul Karim Touré ñëw mu ko koy bëgg a nett am riir mu ni ko génnal te xool ko mu génn xool ko mu ni ko Ibra Fall la mu ni ko ànd bari mu ni ko wax ko mu ñëw te ànd ak moom dong bi mu ñëwee ko Ibra Fall mu ni ko Mbàkke mu ko da fekk ma doon bëgg a nettali Abdul Karim Touré li ma taxoon a dem ci géej gi Cheikh Ibra Fall ni ko ah Mbàkke loolu ñëpp ko war a xam mu ni ko xanaa teggil leen seen xisaabu adduna ak seen xisaabu àllaaxira bokk yi loolu dañ ko ko mën a fay ba ca topp mooy nu war koo di ko waxtaane ñu war tam di waxtaane Serigne Touba ngir ni ak jaamu yàlla la mm. sëñ mm. maam Thierno wax na ko léegi mbokk yi jataay boo xam ne sëñ tubaa dafaa teew mm. aka wuuteeg jataay bu sëñ tubaa teewul moo waxat ni jataay buñ may teew di ma waxtaane bu dee ñaar lan maa leen ñetteel bu dee leen ñeenteel bu dee juróom ngi seen biir te ku ci nekk loo ca pas-pas ba nga ko amee dinaa soppaliku jëm ànd a moo tax wax na ko seey saa jenn mu baax ma da daan toog jataay bu mu toog ñuy waxtaani sëñ Tuubaa bu ñu ñaanee mu jóg mu dem sëñ bi ñibbis ni ko ci loo neen mu ni ko fuñ lay waxtaani ma toog bu jeexee ma jóg mu ni ko Isa mu ni ko ah. Mbàkke mu ni ko moo tax fa nga dekk kenn jotiwu kon waxtaani sëñ bi day day day day ngëneel di ak jaamu yàlla boo xam ni tawfeex la mag ñi ah. dañu daan waxtaani sëñ Tuubaa ah. ñoom sëñ Tuubaa da leen a jaaxal sëñ Tuubaa da leen a ëlëman ba ca topp it mu bis dafa woo sëñ Muusaa waaw ak Cheikh Samba Diarra Mbaye ak sëñ Mbaye Jaxate ak sëñ ak sëñ ba ñu sëñ Tuubaa ni leen dee leen ma waxtaane di ma wax nit ñi ki ma doon hmm. ndax buñ ma xamee jariñu te buñ ma xamul dem feneen di fóot njariñ te njariñ du fa ne laa tatlu banna min si waaxul fadle sa taxabin fal fadlu min xayrihi xat kaana masluba Cheikh Ibrahima Diop almasari yow mi tung fu ne la ah. ngëneel foofa daw di ko jox ko sëñ Tuubaa te dootu fa jóg kon li kon wut lépp a ngi tey yi ñu yow li dee wut nekkatul makkaaki faasa ki xaay ah. fu as njariñ ma sa dekk mbaa barke jóg na fa tey ay xott moo di sépp bamba rek moo di ngañaay ah. ah bamba rek moo di ngañaay solo sa ñam di seen jéeri ah, nañ dellu ca groupe bu njëkk ba kay nañ ah, njot lool li ñuy wax yëpp daa dugg ci ila yaqaadallahu ma lam yakun ni wala yakunu abadan li mumkin man nag li mumkin bee ma jaaxal hmm. waaw li mumkin man mooy mooy li ma yem hmm. Hmm. ndax mumkin sëñ Tuubaa leeral na ko ci mawaahibul xuddus mumkin dafa am mumkin mawjud ak mumkin maadum waaw loo xam ne yàlla def defu ko waaye mën naa am mu defi ko suba ak loo xam ne yàlla defu ko waaye du ko def ba ila yawmi din loolu mooy mumkin mawjud nit ki nga xamee ne dafa dafa dafa jaasir mun naa bañ a am doom waaye dara wóoru la ci yàlla mun naa dem ba jëmmi jamono mu dogal ko bu ko dogalee mu dellu ci mumkin mawjud bu ko dogalul mu dellu ci mumkin maadum nee na ñaar yooyu nag benn du ci am <laughs> mumkin ni boobu ci am mooy mooy may na ma loolu dootul nay kenn waaw loola man mooy li waaw mooy li ma yéem ci kaw li ma yéem ci kaw hmm. beneen bi mooy hmm. dafa am ci nitu yàlla yi ñoo xam ne ni hmm. dañuy xoole fa lawxul mahfuz waaye mënuñu faa bind mënuñu faa fare am na ñoo xam ne nag mënees nañ faa bind waaye mënuñu faa far am na ñoo xam ne nag dañuy bind di far Ah, ok loolu suñ ci nag moo mel noonu. waaw waaw ah, moo tax mu ne ma waaw kay moo man lam yaxwan yi ah. xat ba fi lawxika lazi fi dul kutuba lool nag moom du ko def hmm. nda moom afawtu anil aada yi hmm. turran li wacci man nafaahum li xayri sarmadan la suat faw ñaanal nu julit ñëpp ñu texe hmm. moo tax du du du bàyyi kenn mu koy texe dil falaxu ba waaye dafa am lu ñuy wax wax xuttalin fi ala wax na ko ci wakaana xaqan infial mooy loo xam ne ka koy def du ko tàggu sax moom sëñ Tuubaa hmm. waaw waaw bu dee <laughs> bu rek moom mu def ko du tàggu sax sëñ Tuubaa ca loola ah. waaw moom baax na ba ba seetaan benn jullit muy mel nen hmm. wala la la koy texee dil hmm. lool infial la waaw waaw loola infial la waaw loolu nag ilaa qadallahu ma lam yakun ah. ni da cee dugg waaw ajabani rahmaanu xablal xalqi sab'ina alf sannatin bil xaqi waaw léegi aja al ijabatu rahman ak bokkut ak al ijabatul xaq bokkut ak al ijabatul xalq al ijabatul xalq suñu borom ruux gu man di nekk hmm. nangul nga sëñ hmm. waaye nag jëmm lañuy sol ci ruux mu ñëw fàtte la mu xamoon hmm. ba mu dëpp waaw nazaani min al waral baaxil xadim allamahum bi anna nil abdul xadim loolu seen ruux moo ko def seen ruux nangu na far fos mu neex leen mu naqari leen comme ba yàlla ne alastu bi rabbikum danoo tontu taw an wa karhan waaw ah, mu neex leen mu naqari leen danoo ne balee waaye nag dañoo ñëw ci àdduna jëmm dugg ci ruux ba tax ñu fàtte kan mooy yàlla waaye ruux yi noonu lan mel ci sëñ Tuubaa tontu woon nañ fële mhm. d'accord ci kenn gu sëñ Tuubaa kenn doon kenn waaye danoo ñëw jëmm dugg ci ñoom batax tax ñu suufiku waaw ah. xanaa xam moo tax sëñ Jéen waaw suñu borom di wax fa zakri waaw kay waaw kay waaw kay faal lim waaw kay xamoon nañ sëñ Tuubaa bu nag waaw kay koy fàttali gis nga jub moo tax yàlla bi muy wax waxut ne waxut ne alastu bi waahidin dafa ne alastu bi rabbikum xam na ni moom mooy seen borom mhm. <laughs> waaye kennal gi moom moom la ñuy bañ bu ne woon ndax doonuma kenn danañ ko yeddi moo tax mu ne alastu bi rabbikum xam nañ mhm. ñoom xam nañ yàlla mooy seen borom mhm. waaye nag danoo ñëw ci àdduna nit ñi bare ba ñi ñu tuddee yàlla bari ñu wutal yàlla beneen morom waaw waaye suñ ci waay it xam nañ ni kenn la waaw ñoom seen i ruus wérantewu ko sax waaw beneen bi mooy lu sëñ kenn na mu mel kenn mm-hmm. dëkk ca fekk si wut ci kaw suuf mm-hmm. kenn fekk si ko ci li mm-hmm. lil Musaa nawaytumaa jaddidu sunnatul xarra wa inni ahmadu sëñ Tuba ko ma sa wax maa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy ñaar ñi gën a xejj ci yonante bi sallallahu alayhi wa muy Abu Bakar ak Omar sëñ Tuba dafa ne mel naa ci ñoom niñ mel ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam naajeytuhu wa ajaabanii billazi bihi xat surtout bil muxtaari kal jaariñ waaw ahlu badrin ñoo gën ci kaw suuf seen i fuuriti fas sax moo ëpp maqaama wali yi ñuy lim seen fuuriti fas dun moroomi a wali yi ñu mel dafa ne basarani llahu bi anni waahidu min ahli badrin xaafa min nil jaahidu waaw ak yeneen ak yeneen ba am na ci nitu yàlla yi ñoo xam ne nii dañuy jël seeni xol bind ca la ñeel ca lawxul maxfuus bi def ko ci seen i dënd mm. tànte kase ko ca mm. Mm. moo tax Cheikh Fall doon naan suñ mooy ku kenn xamul fekk dënnub nit nga cee toxal di ca bind waaw loola lu doy waar la tubaarkàlla waaw ah, sëñ Jéeri danañ del danañ danañ danañ del siwaat sëñ maam Thierno ba waaw xam xam nga euh, maanaam waxtaan wi day mel ni gars yi sax ñoo lay ubbi ndax ku ci nekk rek ndax suñ Tuubaa buntu bi daa bari buntu maanaam day mel ni kër gi daa bari néeg néeg boo ci dugg bari kamot te sax fi ne jotaay bi sàkk sàkk sàkkuluñ ko benn benn yoon. déedéet fu waay neex jaar. waaw jotaay murid la moo tax léegi waaw. jotaay murid la mi loolu baax xadim ko waay yëg na yëngu. waaw jotaay murid la sëñ ko tuuti rek. waaw ndax moom mi nag li ko boole ci sa ko boole ci yoon wi mbir la demal. doona makaati bi. Uh-huh. ibaadaatu maa. تقربي كل المسايا جمعا دون مكاتبي عبادات معا تقربي كل المسايا جمعا دون مكا مكاتبي عبادات معا تقربي كل المسايا جمعا أستغفر الله عظيما وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحقي واجعل الله مغفرة من جملة المناحي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن دمائر غافر لفي كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فعملي على الماء وزدني علما وعملا وادابا وفما ربي اللي شيف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامضة يا خير من كشف سر الغامضة ليزمح جميع ما تفرخ لدى ختي من الخير وصفي الخلدى لخد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن من قلم يا هب لي يا كرم هب لي يا كرام في تلاوة خيرا كثيرا من قبل خلاوة بغل اللهم في خياتي واجعل فؤادي وتنال آياتي رب لي كوني بسر كل من يتوب ولي زواخره أبي مال غيوب قبولا أكون بي من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتخون برحمتك يا رحمن يا رحيم أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذلك gal xadimi ahmadu rabbi ilallahu wa nabiyu ahmadu wasilati lahu wa inni ahmadu inni ala ahmadu rabbi ahmadu fadlan wa xayrul qawli inni ahmadu ahmadu haza qala inni ahmadu li anna xayrul qawli inni ahmadu jaa ilayka ahmadul mbakiyu wa zaado ahmadu kal aliyu jaa ilayka ahmadu Ahmadu Mbakke wazaado Ahmadu Kal Anliyu. jërëjëf borom Tuubaa. bëggoon na maa xam nag lan moo la boole xasida Sëriñ Tuubaa yi. waaw. assaani lil arabi lisaanan wa abliqihil bayaanan. wa baadu ixwatul kiram taxiyatan tayibatan mubarakatan min allahi ilaykum ala waxya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bi munasabatihi hadihi aldikra alsanawiya almuqassas li cheikhina wa moolaana wa xudwatina cheikh ahmadou Bamba xaadimu rasulullahi ñi ngi siyaar mbokku taalibe góor yàlla yëpp mm-hmm. ba ci maanaam ki nga xam te moom mooy kilifa kër gi mm-hmm. di la siyaar yow mi it di siyaar kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo teew ci jotaay bi mm-hmm. di bëgg ci yéen baax a baax ci waxtaan bi man damaa daanu fi mu ne barki borom tubaa euh, li nga xam ne nag moo ñu boole xaside yi euh, waxtaan bi sànq dugg na ci barki boroom tubaa sëriñ tubaa dañoo moom lu lu jiitu. Mm-hmm. balaa balaa balaa ñun ñu xam ni ñu nekk nañ. Mm-hmm. ñuy xam sunu am. Mm-hmm. waaw ndax ñun boobu ak léegi boobu ak léegi. ni ni yëf yi di doxee rek ci lañ xamee ñun ñun lii lu yàgg la woon. day doog a sulleeku rek. waaw lu yàgg la woon luy doog ñëwaat la. barki borom Touba. ndax diw diw day jàng daf maa neex nga dugg ci. ab diir nga mel nga nga am noo mel loolu dama yaakaar ne lu yàgg la woon daa daa ñëwaat. Mhm. barki boroom tubaa mhm. benn gone gu ndaw laa daan gis muy muy yëngu ñu koy wax Fallou Maroon. Mhm. dëkk Géejawaay. moomu njëkk a jox dol booba boobu feruma sax ijji. demaat naa fi gàmbeek yu ne nga xam ni samay waa kër ñëw mu yóbbu woon foofa ngir ma fay waaree. waaye foofa laa doonee jàngkat ñëw fi. nga xam ne daanaka balaa balaa balaa maa balaa maa yeeslu sax. daanañ ma bindal ay allahu min kulli karim ma koy ma mokkal di ko di ko di ko di ko di leen ko jàngal di ko jàng ñuy bég te booba taxagut ma muy ma ma ma yaslu kon loolu ci laa jàppee ni lu lu yàgg la loo xamante ni daa daa daa day doog a feeñ mm-hmm. day doog a feeñ ñoom moom démb tey doog a ñëw barki borom Touba suñ <laughs> maam Thierno waaw da ko woo nag waaw da ko woo xam nga sànq bi ñu soog a tàmbali maa la koy wax maa naan la man sama papa maguma mm-hmm. xam nga mu yi ñëpp a maase moo tax fi mu ne moom bi dañ ko woo moo tax faaw mu ñëw maanaam tubaab bu doon murit nii da ngaa defee ne ordinaire la déedéet hmm. tubaab nan la war a mën a def ba doon murit sëñ bi loolu dañ ko war a bàyyi xel waaye ruu yi la suñ tubaab woo gis nga amara nii rab bu ànd chara suñu borom dafa maa jox ndigal dama naa woote hmm. loolu moo jafe te boo wootee mu moo lim ruu yi war a jaxe dañoo war a ñëw hmm. gis nga moom mi daa bokk ci ruu yi nga xam ne sëñ tubaab day na tànnoon ca ba muy tànn te boo gisee sànq maan la man kenn nooguma mooy tànn bi sëñ tubaab ñëpp la tànn doo ndax dafa am bis sëñ tubaab di wërloo sëñ ma sàmba benn xalima ci biir masam mun waaw mun ko utal wëral ma xalima ak sàngam daal di koy jox wax xalima gi ni mel sëñ Masamba dugg ci biir di wër xalima di wër xalima ba sonn mënut a fexe ba gis xalima gi suñu daan na ko Masamba mu ne ko Mbàkke fu grâce ndax moom Mbàkke fu grâce la ko daa la daa wuyoo mu ne ko mu ne ko mu ne ko xanaa da nga ko gis mu ne ko Mbàkke maa ngi koy seet ndax ñoom daawuñu wax sëñ Tuubaa déedéet ndax boo ko nee déedéet say mbir fa lay jaare doon noo ba ilaa bi diine moo daawuñu wax sëñ Tuubaa non mu ne ko mu ne ko Mbàkke maa ngi koy seet bi mu yàggee loolu ci biir suñu daan na ko Masamba mu ne ko Mbàkke fu grâce mu ne ko mu ne ko dikkisil bi mu di gisee ma sax sëñ Masamba ak mag ñi koo ci mën a gis laa wax kenn daawul xool sëñ Tuubaa ci ñeenti bëtam mu sàmm sëñ Soy wax na ni bi mu njëkkee gis sëñ sëñ Amsatu Jaxate jotaay sëñ Amsatu ak sëñ ak sëñ Tuubaa nee na keroog la a gis sëñ Amsatu mu mel mu mel melokaan boobu ndax sëñ Amsatu Jaxate nee na ko ci bari ak bari maqaama ak ak maanaam kilifteef ba bi mu njëkkee gis sëñ Amsatu Jaxate kenn sëñ Tuubaa xàmmeetu ko ndax booba yorut mbaxana yorut kaala daa daa jeex takk lu dul ab ab la sol ba noppi xoolu sëñ Tuubaa ci ay bët sëñ mané non da def ni groupe rek sëkku souf daal di jël ab jëm da di koy wàcc maam nga xamni bobbi la won sëñ touba bi mu defar daay tàllal loxo ni sëñ day gis ben khalima bu lal ci loxe bi waaw sëñ Tuubaa dana ko mu ne ko mu ne ko xalima gi la mu ne ko mu ne ko Mbàkke day da melni ne nak bi bii mu ne ko khalima gi an an mu ne ko Mbàkke bi ñi wër lañu top tax xamu ñu tax ñu top mu topp ñu sëñ Tuubaa dana ko dana da melni ci san ci san la de dana ko Masamba mu ne ko mu ne ko xalima gi de mako ko ci biir mom la leen don tané daan ne keroog ba sun borom de ala subi rabikum ñeen wax xaale xaalo bale daan ne keroog laa leen tànn daan ne ko xalima gi masam mu ne mu ne ko ci moom laa doon tànn daan ne ko ci saan loolu moom lay topp moo tax bi mu ko topp la daan ne ko masam mu ne ko mu ne ko waaye jotaay boobu dinaa la ci nettali dara waaye du ma la ci nettali lépp daan ne ko bu baax a baax a baax a baax hmm. ndax kenn ku nekk yéen day bi ma koy tànn damaa def naa ci moom ab diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg hmm. daan ne waaw sàllaaw murid du woyof hmm. dan ne ndax kenn ci yéen fekk ma fa ma ne nga tànn nga tànn ma maa leen maa fekk si tànn leen daan na ko jotaay boobu de Masamba xa ana ana nu mu demee Masamba suñu Masamba daan na ko suñu borom dafa daf ne alas bi rabagum daan ko ma ma ma ñëpp tekk nee na ma am ku ma jëlal daan na ko wuyul yow lay woo moo tax diggante suñu tuwaag bi maanaam na ci gars yi maanu waaw gis nga seen ñoom si hmm. fa kenn mënu koo lijjanti dañu leen waaw maam da ngay bàyyi noonu mu dem yeente bi sax daa daa di wuyu hmm. nee na nee na ma toftal sama wuyu ci wuyum mais hmm. suñu borom na daal wax yi wax yéen daan na ko demal nga tànn ne yalla sax bimu tané ba nopi rek mu ne mu ne ma comme yow ya, ya, ya ci top dama ko tan ndax mom mi njëkk ko wax xol na mbolem ruy ya ko ci gëna bëgg ya ko ci gëna a bëgg hmm. nee nak sëñ tuwaa nee nag bi ma bërit daal di juk sëñ tuwaa yu góor sëñ bi sëñ Tuubaa man man mag ñi jaaxal nañ ma man nu ñun mën a gisee sëñ Tuubaa te na ma barke sëñ Tuubaa <laughs> wallaay fotom su ma ko xoolee trois minutes hmm. bu ma demul damay damay damay damay yuuxu hmm. sëñ bi sëñ Tuubaa ku ko doon gis man jaaxal na man ñu ko ñu ko nit mën a xoolee moo tax na sabab nag am na non am na am na am na yow yaa quelque chose jàkk amul barke sëñ Tuubaa mag ñi doon gis gis sëñ Tuubaa hmm. yemuñu ak ñun waaw sëñ bi de sëñ Tuubaa bi mu nee bërit dem tànni sëñ bi loolu jotaay boobu rek doy na doy xam moo tax sànq maam sañ jéeri hmm. maanaam yàlla dañuy fàttali waaye xamoon nañ moo tax moo tax fa zakir lay waaye du wax faxal lim hmm. ndax jotaay boobu ñun ñi ñëpp fa hmm. am xam ne ñu koy fàttaliku na ñoo xam ne fàtte nañ ko waaye noonu la demee suñ tubaab daf ni bëri daal di jubali daa nitilo ma sëñ ma sàmba daana ko nag mu a tànni daana ko ne daa dafay romb nga xam ne moom lañ fa bàyyi nga xam ne ñaata milliards doomu aadama ñoo doonu julli ñaata ñaata milliards doomu adama yent yi fa leen bàyyi nee na ma jubali jubali ci yent bi nee na mm. damaa ñëw damaa ñëw ba ci moom ba ci moom mm. ma jàkkaarloog moom mais mi ngi ëmb ruuy te ëmb ruuy ay ruwam li mu tànn nee na yent bi mu ñëw ba ci kanamam daa jaaxle mm. moo tax suñu too daan wax naan yàlla da koy jaaxle waaye bu doon jaaxal ma bu doon jaaxle ma jaaxal ko waaye yent yi moom jaaxal naa ko yàlla du koy jaaxle mm. waaye bu doon jaaxle ma jaaxal ko mm. waaye yénte moom naa ko lool tamit na ci mm. murid yi bàyyi xel loolu lu ma ta xalaat la loolu mooy Sëriñ Tuubaa mooy kenn ki la rek ndax yàlla du koy jaaxle moom itam du koy jaaxle waaye nee yénte bi jaaxal naa ko ndax nee na keroog bi ma jàkkaar la moom war a dafa ne ma ana ko tànn mu ne mu ne ma déedéet daan na ma yow lee ma bàyyi fee fa laa tànn demal fee nga tànn nee ma ne ko déet du ma tànn foofu fii laa fii laa fii laay tànn te daan na ko te dinaa la wax lu tax ma war a tànn fii nee na mu ne ko ki la tànn loo moo ma tànn loo mm-hmm. da nga am ndigal tànn ma am ndigal tànn waaye ki ma tànn loo yee na ma xamal na ma ne ma nee na yow yaay gën gi def yaa ko gënal comme yow yaa gën yow li nga tànn moo gën waaw léegi nag gënal gi nga gënal yàlla ak gënal gi la ñuy gënal ci la ci ci la ma tànn fii gënalee nee ñeenti bi foofu bu ñu naan weram bu ñu dox weram dañ naan weram na nee na mënoo ko jëfal si ndigal mm. suñu tubaab nee na masam mënoo ko mbàkke mënoo ko keroog yàkkamti wu mm. ma de ndax man mi doon tànn say bët naqariwut te ki ma doon tànn loo yàkkamti wu ma daan na ko ma jël sama xalima benn par benn laay tànn murid yi hmm. moo tax murid yi du ñu ordinaire de hmm. sëñ tubaa nee na ci ikmatu hmm. na ma ñeent yoo xam ne maa ngi ñaan képp koo xam ne sa da nga may bëggee nga dima ci santale nee na na ci mooy suñu borom nee na képp ku aju ci man moo gën ko aju ci man ba keroog ñuy tàbb biir àjjana ab murid moo gën ku du murid loolu na ko wax te bindum sëñ tubaa la sëñ tubaa daan ne ma sàmm mu ne waaw mu ne ko keroog daan ne ko benn par benn laa leen moo tax ma ne ñun ñëpp maase ndax Sëñ Tuubaa fa lañu tànnandoo kon tànneef lañ daal ay tànn maanaam tànneef ci biir tànneef tànneef ci biir ci biir tànneef gina hmm. moo tax sëñ bi dafa jàng xasida gu doy waar fi mu ne xasida gi mu njëkk jàng hmm. muy astaghfirullah bii hmm. Sëñ Tuubaa ba mu koy bind boobu boobu Mamadou Sali mi ngi fi astaghfirullah ginnaaw Mamadou la jor la fekk xasida googu la Sëñ Tuubaa joxoon la jor bi muy dem ci xare ba dëgguma la xanaa kon moo tax murid doon wax naan bellee suma ràññee déedéet ràññee su ma bellee su ma bellee ràññee. waaw waaw góor ah yow yow maamu da nga maa neex yow da ngay mag waaw ndax ndax ndax. bellee su ma ràññee. waaw ràññee su ma bellee su ma bellee ràññee. fi mu ne xam nga loolu ndax fi mu ne ndax sëñ Cheikh sëñ Moutar ak sëñ Mountakha Garaaw. Ah. ñoom ñaar seen tur ñoo nuroo. Ah. maanaam waaw tànneef. Hmm. Mountakha Mucitaba. Muxtama hmm. Muxtaar yëpp ñoo wax lu ñuy teg. Ah. maanaam mooy ku ñu tànn ku ñu segg seggaat ko ba bu baax a baax a baax loolu lay tekki ñoom dañu leen a segg ñoom ñoo ordinaire duñ yii barke sëñ Tuubaa sëñ Mountakha hmm. du morom kuñ fiy dégg ci borom giir yi ah barke sëñ Tuubaa laa lay waxal nii ah walaay laazim gis nga ku mel ne sëñ Muntaxa hmm. da moom rek laa tudd turam de waaye mën na tudd ñeneen hmm. boo ko waroon ba àddunay tukki doo ko gis ci fudul sëñ Tuubaa ku mel ne sëñ Muntaxa amul ci kudul sëñ Tuubaa hmm. walaay laazim mel sëñ Tuubaa ko say am gis nga bayit bi wax sax daan ilay xaa dalaaxuma lam yekun walaa yekun am doona li mun ki ni am na bis benn naar bu koy dingat di ko lijjanti sëñ Fall da ko daa ah, lu jaaxal waaye mu ne ko mu ne ko li ku ni moom a jaaxal wax na ko li mun ki ni ndax yàlla nangu na moom naar bi sax nee na man gëm naa sëñ Tuubaa gëm boo xam ne lu jiitu sëñ Tuubaa sax yàlla may ko loo xam ne may ko woon ña jiitu te ña jiitu ñëpp a ngi ci biir mm. waaye daana ko lu ñëwagul te moom dafay jóge ci zaahir mm. sëñ Fall daana ko man man maa yëlay xadd laahu malam yëku ni waaye walaa yëku am dana li mu ko man mennu mm. man man sëñ Tuubaa képp mu saam ginnaaw ma ginnaaw ginnaaw kenn du ma mat sëñ Fall ne ko man maa yëlay xadd ni walaa yëku ko dana li mu ko ni te wax na dëgg sëñ Fallu doguma la de waaye sëñ Fallu wax na kenn ci mag ñi moo wax ma fa ñu sëñ Tuubaa fekk ne leen kaay ñu ma àddina boole ñu ci njabootam keneen ku ñu fa fekkoon dañoo woo duñ la wuyu. wér na ki ma ko wax kay mi ngi may dégg mi ngi ci jumaay Tuubaa ji. wér na mag sëñ Fallou ko ko na loolu mooy loolu mooy li a waaw xam nga ñoom ñii sëñ Tuubaa a hmm. da ko daax danaan naan sëñ Tuubaa mi dem ci géej gi sax dafa yóbbaale waa këram yi ci baatin. Hmm. waaw ñoom waa këram yi xanaa xam nga bañ ñi xam sax dañoo feeñ ginnaaw géej gi sëñ Tuubaa dañu leen yóbbaale. Hmm. waaw ndax sëñ Tuubaa bi mu jógee ci géej gi rek. woo na soxna Fatou Sylla waajur sëñ sëñ Muminat moom sëñ Tuubaa daal di koy daal di jox jox genn kayit daal di ciy bind mu'minatu daan daan daan daan na ko da nga mooy waaji soxna mu'minatu day gën a kiimaan mooy te at nañ ci lu fukki at soxna mu'minatu soo ko soo ko feeñ jamono sëñ Tuubaa demaan na gànnaar ba ñëw tam jugee jigéen yi la ko jox ko ko ñoom daleen sëñ Tuubaa daleen daleen ñoom duñ aj duñ duñ ñooñu waaye fi ne boo xoolee asafurlaa bii moo lay wax loolu ah. xasida gu gàtt la waaye moo ram moo ram la jox sëñ Tuubaa nee na moom laa jox la jor waaw xas asafurlah bii keroog bi si bi lajjor tàggoo war a dem ca xare ba hmm. te sëñ tubaa euh, du waxal ko tere ko mu ne mënut a ñàkk ba ca dem hmm. sëñ tubaa da dafa bind asafurlah bii jox ko daan na boo demee na nga ko yóbbaale hmm. xasida googu moo ramu la jor moo tax suñu taa di wax naan képp ku ko mokkal ñu dama sa xale ak bàkkaar tubaarkalla danañ del si euh, bismillah sëñ am bi de xanaa sëñ maam Cerno daa mel ne waaw moom daanaka laal nañu ni mu wax rek moo nekk moo tax murid day li sëñ Baara Jenn ah. mu baax ma hmm. boo mosaan ni moom Cheikh Issa Jenn moom Issa Jenn hmm. boo mosaan ni ñëw ci ni ko diw dafa baax hmm. danaa la mbaa jébalu na boo ko nee jébalu mu ne kon des na murit moom mooy li gën moo tax ñun ñii sëñ Tubaa tànn loolu Cheikh Ibrahima Jubal Masari moo ko nee na ñun ñii sëñ Tubaa moo nu tànn ixtaara maxtaarahul muxtaaru ni'malahu faxtaarahu wa muxtaaru muxtaaru nga xam ne sëñ Tubaa moo nu tànn ci biiri tànn kon murit moom du buuse léegi ñun li ñu war am yitte ji ñu war a am jenn fi ne lay wolof mag ñi ne nañ mhm. sax sax da yeb areen rek mhm. waye bu areen amuton mhm. sax sax du am bañ diko <laughs> ko tudd waaw ndeysaan <laughs> jere waaw wallaay dëgg la ah. moo tax sëñ Mamoun ñaari yenn yitte rek lañ wara am muy liggéeyal sëñ Touba ak sant ko te li ñu koy waxtane booy ci sant ko la bok gis nga doomu aadama ñaar la bëgg ci aduna muy aajo ju faju bu dé tabbi aljana te aajo ju faju Sëñ Tuubaa nee na kii may liggéeyal fajal aajoom may ko lim sàkku waq di xawaa ijal lazina daamu fii xidmati wa hablahum maaraamu kon kii koy liggéeyal aajom faju na fatou mom dégg nga li li wax neena na ñi may liggéeyal buñ faatu duñ tabbi ci jëlagub àjjana hmm. duñ tabbi ci cat la hmm. ca diggoo la innal lazina saru li khitmati wala mu diyaar janna kon guna naa nit amu ko nangam moom koko moom ba rek na wax mom li gënoon wax ni mom sama bopay miti rek waye suñ bopay miti mom kenn duko wax kon lolu mo gënal ci mom kon liggéeyal sëñ touba ba ca top dañu war di waxtaane sëñ Tuubaa hmm. ok xolal alquranul karim ni mu magge ak ni mu bëri li ci ëpp net li ci bëri la Moussa defoon yëg yi defoon mm. la Yuusufa defoon mm. mais ñooñu li nu def ci diine mm. sëñ Tuubaa du seen morom mbokk yi di Daniel gayndem ga daal rey noonu ya Moussa labal firaw na yoon ya nuuxul labal bañam ya rey noonam ya Seex ne moo leen joxoon bootam ya sëñ Tuubaa nee na jommalu ma ay gone ña yegg ca yàlla bañ leen di ay saalixiina ak ay nujabaa ñooñu laa tëj seen bopp wajjahtali maa yazaalu ajaba fii abadin li saalixiina nujaba wéggali ko bàyyi mu sax karaamaati rijaali mooy sa buubitum néeg barab yan war a màggal fa la gone yi toog moo tax ku amul doom ji ji toll ni Cheikh rek leel sëñ Tuubaa du morom hmm? ku amul taalibe bu mel ni Cheikh Ibrahima xam nga li doon am bu fekkee mooy am rek kenn du xam nit ba am na morom wala déet xam nga li am julli jàpp dem ca jàkka ja ñëpp moom lañ doon def sëñ bi dafee baloon lépp def lu kenn defut hmm. yan ban yenoon xutbu ya ak lab daal yi te attanuñ moo ko fab raw gaay léegi moo ko fab leer léegi kon lu tee mu raw gaa yi nan ko nangu suñ tubaa du seen mappandoo maas dégg nga suñ tubaa du seen mappandoo du seen maas na ngeen njàng mbindam mi borom arab maas dégg nga la Baye Moussa ko wax ma way fi ndaama la gàttoon te gétti waa faas hmm. faas ku fa nekkoon Seama Tijaan Sirif hmm. sëñ Tuubaa du moroomam ah ma wa way fi ndaama la gàttoon te gétti waa te raw yaarami faasal rijaali muknaas alam tara aynaaya mis na sayqi kamaalan wa jamaalan azala wishqi hmm. sëñ Tuubaa du ñii léegi alquran comme mooy tudd yoon di leen nettali ñooñu sëñ Tuubaa du seen morom ndax bu fekkee ndax bu fekkee ni ndax bu fekkee ni hmm. yonent yàlla Moussa ci ulul azmi la bokk téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni la yàlla sàkk tànn ci ñaar fukki juróom tudd leen ci alquran tànn ci juróom mi ulul azmi hmm. ulul mi ci ak bokk ak Nuux dégg nga sëñ Tuubaa nee na maa leen may saay deuxième position bi mooy Seydina Ibrahima hmm. laal ko bamba fasaan jàppam la daal am xaal hmm. ba muy masaa madam ba del si laal ko keroog la am maqaama Ibrahima fil baxri maa yom la jël na réewum a la mën dañ ko daan waxtaane naa ko mu bis da leen a bett ci diir alaaji mbàkke bi rek boo dee di ko ci fekk ku ne sut waaji ko mu sëñ ni tëll génn mm. duggee ca genn kàddu baamtu ko fa mi ñetti yoon mm. may woowe nu ngeen may woowe nu ngeen may mm. lim doon wax kenn ñi miwu ko waaw wax ay suma yaqaf ilaahakal axat yaqaf ka min xafika an kulli axat ragal gam ragalan boromam tax ne kenn ñi mewu mm-hmm. moo tax mag ñëpp ni teg mm-hmm. mu ni xanaa da ngeen may wax yàlla sañ Mbacke Diouf ni ñoo ko Mbacke da am nañu ñu àgg ci di la wax loolu waaye am na ñu la ko dul wax sëñ bi ni leen mat naa wax mat ta wax ndaxul wala waaye ñama koy wax man maa leen moom moomu ko aji bind hmm. zimaamul wara asri ladallahi fi yeddi wa ma rumtuhu min malikin qaada bil an ñama koy wax wahaba allahu tabaraka wa taala kawnu jamil alamina abidan mamlukina lahu wala wala man nasilu wakki hmm. yàllaa def ak nos bind ko teg ko ci nos ñëpp seen bakkan ni ma am hmm. wamatal te billaahi barke Cheikh Amadou Bam te adduna moom foofi teg sa tànk lu mu ruqe ruqe sëñ Tuubaa ko moom moom malaaka yi dunya lu mu ruqe ruqe sëñ Tuubaa ko alaxira mënoo faa am pàkk bu sëñ Tuubaa ndax waxuraa malaaka yi dunya waxuraa al samadu ah. léegi kon moom boo bañee sëñ bi moom moom fexeel ba bañ am ruu ah waaw bu ne gis waaw fexeel ba bul amaguru rek bul dund bul ñëw rek bu fekkee ni adduna itam bëggoo fee ne bambaa ko léegi nag lànk geeg bañ gi yow moom yow la angaas hmm. yàllaa gën ñëpp bind ñëpp hmm. téewul am nañu lànk ni ko bindoon hmm. kon loolu dana am yaa xam boo lànkee waaye mm. mënoo fexe moom ba sëñ Tuubaa moomul dégg nga tafsir Mour Gueye wax na ko mm. ab mu xaddam la caraba a dëkk mm. biñ ko dee loo xam ci sëñ Tuubaa dani adduna bu ma ko doon misaal day mel ni ab paraat mm-hmm. sëñ Tuubaa mooy baraada bi kum xellilu doo mus ah, sif ardana tabaqan wa xawlaha kuusu mm-hmm. bambal baraadu alladi yusqa bihi l kuusu dégg nga ndax <laughs> mu ni ko am mu ni ko mat naa wax mëtt wax mm-hmm. na ko ko ndax daa am ñu may wax mu ni ko am nañu la koy wax mu ni ko ab yonent lu mu xam maa ko ko njëkk xam wala lu am maa ko ko jox waye ñama koy wax may seenu muhammadur rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam bu ëllëgee buñ ko gisee duñ ma gis ndax koka zaaka xtafal mustafa ka annahuma lawla nubuwati sa saw baadi qad nasaja mok rasulullah da melni ben mel ni sër bu rabbi wëñ ya jaxasoo noonu rek la démé zaaka xtafal mustafa ka annahuma lawla nubuwati sa saw baani qad nasaja ñama koy wax may seenu muhammadur rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam bu ëllëgee buñ ko gisee duñ ma gis motax ñu wax seen jëm si ni ko seen yaakaar du tass aduna ak alakhirah ndax ka ngeen may jëñ bu ëllëgee ko gis du ma gis bu ba ëllëgee ni ko ma àggalee xista bi rek mm. ni ko am na ñoo xam ne dañu may wax ni mm-hmm. mu ni ko dégg na am na ñu may wax naa ma waaw bisimilah mu ni ko am na ñoo xam ne mm. ndax am na am na ñu may wax mm. waliyu mm-hmm. sañ bi ni ko sëñ Bakke Diouf ni ko am na ñu ñu ñàkk kii de ba lay wax waliyu mm-hmm. mu ni ko waliyu moom fa may yendu ba reyaane du fekk si fa te sëñ Tuubaa Baye Moussa Ka na kenn du ko tëkkalee ko xawsu ah. ku koy tëkkalee ko xawsu yaa réer ay mbiram yaa tëbb moo demoo tëbb xawsu seen leer ya wër Tuubaa kenn du ko të sëñ Tuubaa na place xut ngir sàkk nay xut yu sàkk xawsu sëriñ bi yow niroowul ak Jeylaani foo mi niroog saasali waa Tijaan du fenn mm. moo tax sëñ xoolee sa kanam ba sa yi barke Cheikh Ahmadou Bamba di nga xam ne sa dara niroowu jëg sëñ Tuubaa waaw dañoo bëgg dañoo bëgg a ñëwaat ci xasida yi

إلا لمن شئت بإذن مني نفعني وبي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى فزت بكون الله لي وكوني لو به بجاي خير الكون أعين كل مسلم ومسلمة وقد كفاني الإله الظلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بغردي قلبي قد صفى وجسمي صححا ولن أزال صافيا مصححا لي يسوق غردي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرد بين لي تبين من لا يقفى علي شيء جادني بالأقفام نعم. وجعل الأجر بقدر العظيم فيما به أبت من در النظيم أشكر سكر المحبين ما وبالنبي ليمنا يا جماعة نعم. بارك لي في كسرنا والقلي بركة بقدر المجلي نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة وسلام ممن به لقاد أفضل الكلام تسليم مما عنده لا ينفد على الذي إلى الصناع أخفد هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجام لو علي صلوات حجام نفعني النافع بالمنفوح السابق المقدم المرفوح أذكى سلامي من حباني بالمنام على الذي كوني لأمك كمنام للمصطفى وجهت أبكار السلام وبامتداء الأذى عن انصناب للمصطفى وجهت أبكار الصلاة مع سلام بفاق ملا هداني الباقي بلا ضلالة وبالنبي يقود لي حلالا وجه للباقي الحديث الحذاب وبي يباهي حزبه الأعزاء فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما دبت الكريم وطاب للقراب وبمنازل حدام القرى تبارك الله xam nga sëñ Mamour waaw fi mu ne waaye sëñ jiir de moom war a wax waaw ñëwal rek moom moo war a jël kàddu bi ñëwal xam nga maanaam sëñ Tuubaa waaw maanaam feeg feeg ñi ngi koy jàppee jëmi doomu aadama ju taxaw hmm. ju doon dox yor am sañ ci kër yorug njaboot duñ ko xam mhm. waaw mam Cheikh Ibrahima Fall da da da waxoon na waxoon na sëñ jéeri waadam sug turandoom waaw daan na ko jéeri mu ne ko mbàkke mu ne ko kañ nga jébulu mhm. mu ne ko bi ma amee ñetti fan sama sama biiru ndey mhm. mu ne ko ah jéeri sa jébulu sa jébulu yàggut daan na ko man ba may jébulu sëñ baam booba ndey ak baay amut nee na ko bu may jëbul suñ bi mu amee ñetti fan ci la jëbul suñ tubaab moo tax maanaam suñ tubaab darul dimension maanaam yii Mm-hmm. sëñ Tuuba day ku kenn xamul waaw waaw suñu moom ma rek li ma wax ci ilaa yoxaadullah maalam yëkku ne mm-hmm. waaw suñu waadaan waaw suñu waadaan da da suñ suñu xamata sayib suñu waadaan dakaa woon ba mu ñëw mm-hmm. sëñ Tuuba dakaa woo ba mu ñëw mu ne ko sa bàyyi de kenn xamul doon ndax nit mënta teg tànkam ci diiwaane asamaan yi foo xam ne karbati barki fekku fa karbati barki démbam fekk fa karbati barki démbam ya kon fu waaye mën a jaar ci diiwaane asamaan yi fekk na mu jaar fa ba jàll nga door faa romb waaw te am na ku mu dajel loon ba muy joxe boppam sëñ Tuubaa di ñu mm. doonoon kilifa nekkoo ko sëñ Tuubaa mi ma gis de mm. képp ku ko joxut sa bopp ko man di doon ëllëg sawara yey na la mm. waaw moo tax ñenn ñi danoo jox seen bopp sëñ Tuubaa ci suturawu waaw danoo jox seen bopp sëñ Tuubaa ci suturawu ci ah. laaxatu jox ko seen bopp sëñ Tuubaa it ñaanal leen àjjana ci sutura googa waaw waaw asalukal jannata bil muxtaari li man biya zastitaari waaw ah, yàlla mayal ma àjjana ñi ma jébbalu ci man ci sutura ah, hmm. te bëgguñ ah, ñu siw léegi léegi murit giñ doon wax sànq hmm. murit dayoom kenn xamu ko ndax sëñ Tuubaa waxoon na ne yéen ñi ma jox seen bopp kenn ku nekk ñaar lay wicc ci sahaaba waaw loola kenn xamul lu doon waaw beneen bi mooy moom ci jëmmi boppam nee na ñaan naa sunu borom ay yooni yoon ngir ma nekk murit mu bañ na ma doo nekk murit da ngay doon ab sëriñ yori taalibe di yeggale ci yàlla waaw waaw la bokk waaw xam nga ko murit kenn xamul lu doon kenn xamul lu doon te beneen bi mooy sëñ murit dayoom rëy gi mu rëy kenn xamul suñ tubaa ki mu doon raaba maqaami an siwal baaxil karim way na ni abdun xadimul laa yarim fu mu demee bay tox boppam yàlla ni nga ma yëkkatee mm. na nga yëkkatee noonu kuy jéem a yëkkati samay mbir loola jar na ñun ñëpp ñu soobu ci li ñu jéem a waaw waaw wa aali nii wa aali man yu xinu nii wala tag fi nii jumlatama yu xinu nii waaw waaye sunu waa ji neewoon na <laughs> jàpp leen ci yoonu sëñ Bamba ku ci jàpp mu dem ku ci jàpp mu dem waaw te ngeen cee jàpp mu mel ni yéen a ko doxal ngeen desa sag bi ak wér suy rafal daanaka kat yoon wi kat doom day yokk te bu yokkoon jiñ leen ko wér na wér na suy rafal mooma dafa bokk ci ila yaqadallahu maalam yekku ni mm. moom moom ma moom mooma dajaa dugg mm. ndax li tax mooy dem na ba ci sëñ Tuubaa ku mu bëgg a yokku fanam sax moom la lay booleel. waaw waaw sëñ Moussa Ka mi nekk na nekk na Jolof. Mm. nekk faaw at sëñ Moussa sëñ Siro woolu ko Thiès mu ñëw mu ne ko ci sama kër gi te bu fi génn at. Mm-hmm. malakul mawtu lay wërlu te sama kër gi. fi mu nekk fa at yoo xam ne génnul kër gi. bi at bi door a dem. Mm-hmm. beneen bi mooy Siro ab malaaka la. Mm-hmm. waaw ab malaaka la. ne sëñ Moussa Ka euh, ne sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa sama sama sama tarbiyewu suñ jubaa tarbiyewu ni malaaka yi di tarbiyewoo suñ borom noonu laa ko tarbiyewu malaaka yi nu ñu tarbiyewu suñ borom suñ borom dakaa wax laa yasbiquunahu bil xawli wa hum bi amrihi yaamaluun duñ jiitu yàlla ci wax te lu mu leen wax ñu jëfee ko fa saas waaw ba pare laa yaqsuuna allaha ma amaruhum wa yafaluuna ma amaruhum ta duñ ko mooy ca bu leen di digal ba pare lam leen digal nam leen ko digalee lan ko defee kooka mooy malaaka noonu ku dul moom nag damaa ne bëgg sëñ Tuubaa bu doonoonu kaas bu ñuy naan hmm. ñi ci des ñëpp desitu Seydou Fall lañ naan lenqal lenqal bi lañ naan ah. daa naan kaas ba mu jeex mooy Seydou Fall desitu yaa ngi def ci ndox lenqal koy naan waaye ah, bàyyiwu ca dara moom ñi ci des ñëpp ah. nga gis sëñ Mbàkke Buso hmm. sëñ Mbàkke Buso ku dem ba am garaatug sëñ Tuubaa ne la am nga garaatug ku la neex nga dugal ko ci mérite gi am nga garaatug ku dugg ci mérite gi bu la neexul nga génne ko ci waaw waaw alayka yam na amati waxaal yi wax fa wu wa fusta bil ixraaji wal idxaali lolo ko ah, carte membre da nga ci yoré kula neex nga jox ko mu doon mourid kula neex bu doonu mourid sa def nga dindi ah, administrateur la ci ah, may la bokk loola ken xamul lu doon kon mourid te sëñ Mbàkke Buso mom di imam muridin mo ne woon xawma lu liggéeyal seigne touba du may way dina may ñetti yoy ñetti te ñetti yoy ki takko won ak yonenti bu fukki at yu tëju deureum di ko liggéeyal moko amul muy anas waaw ne dana may gudd fan dana dana may barke dana may aljana anas so yi way juram mooy soxna si nga xam ne moo gën a riis can ci lislaam ndax ba ba ba way juram faatoo ka ko bëgg ka bëggoon a jëlaat way juram wu jigéen moom la ñax sa ka bëggoon a jëlaat way juram wu jigéen dakaa ne mën naa sëy ak yow te moo doon soxna si dàq ci jullit ñi ba mu ko nee damaa bëgg sëy ak mu ne ko mën naa sëy ak ci benn sart mooy nga jox ma aw can woo xam ne ni can mooy can wi ma gënal mu kooka ab yéefar loon mu ne ko ban mu ne ko nga ne asadoon laa ilaaha illallah wa asadoon muhammad rasulullah mu seyal la mu ne ko yow ak ni nga taaroo ak ni nga mel ak ni nga jékkee ak ni nga amee daraja mm-hmm. loolu kese mu ne waaw mu ne loolu duma ko waaj mm-hmm. mu ñëw ci yonent bi wax ko ko ñu may ko ko ba anas juddoo la ko yëkkati may ko yonent bi ne ko jox naa la ko àdduna ak alaxira na doon sab liggéeykat yonent bi ne dana gudd fan mm-hmm. dana am barke te dana tàbbi àjjana waaw anas mooma kenn ëpp woon ko alal ci saxaaba yi te moo bokk na ci ci ñi ci mujj faatu mhm. danaa dem banaan sax ñaar yi ma yonent bi waxoon yëpp gis naa ko ajjana mhm. rek a ci des te xam naa ni danaa ko am suñ bekk bi su neen kuy liggéey suñ tuwaa ñett yooyu danga ko am hmm? waaw ñett yooyu kenn mënu la kaa tee am hmm? te nit ñett yooyu nag ku ko am wàcc nga waaw beneen bi mooy hmm. beneen bi mooy jëmmi suñ tuwaa ci boppam ñii ñuy wax ni Cheikh Ahmada Tidiane yi ba mu wootee la muy wootee ñu wax ko ne xanaa da ngaa bëgg a teg sa bopp ci saxaaba yi mu ne sama doxin ak doxinu saxaaba yi mu ngi mel ni aw avion ak picc ak aw picc perantaan woowu ak ak ak doxinu uh, fele uh, uh, doxinu met melentaan kon xam nga ni doxin wa gaaw na pere picc picc perantaan woowu la mu la mu rawee hmm. melentaan bi bari na lool waaw te moo ne sëñ bi ne wa fi wa fi jaawastu kaaban wa sax xasana tay saxaaba lan beneen bi mooy si Abdul Xaadir Jilaani hmm. toog na aw nit ah ëmb ñëw di ko ñaan di ko ñaan loo doom ji mu ne ko def naa ko muy góor mhm. maa ngi nii di ramb di lamb bagage yi mhm. ci kaddu gi maa ngi tub waaw ah. mhm. kooku juddu doon jigéen mu ñëw mu ne ko wala asim ba mu koy lamb góor la woon waaw sëñ Tuubaa ñëw na di ko ñaan doom mu ne ko suñ borom dogalu ko mu ne ko ma la ko yow laa ko ñaan mu ne ko suñ borom dogal na ko ca déwén sa mu am doom kon yemuñ sax la tudd yemuñ loolu sañ-sañ la ah, tudd waaw buñ leen buñ leen mas buñ leen masala yemalu mukk waaw sëñ Tuubaa day day ku kenn xamul léppam léppam moo jisa la waaw loolu léppam daraam desut di moo jisa waaw waaw sëñ ko ko ko ko mën di tëkkee leen mm. booba dañ daa tegul ci jàkk mm. ni ko sëñ Abdou Lahad di wax ah. waaye buñ la tegoon ci jàkk kuñ la kuñ la jéem a askanaleel ku du sëñ Tuubaa boo jógee doo gàddu yat aw jaasi ngay gàddu fi ne gis nga gis nga sëñ Abdou Lahad moom dudd xam nga fi mu ne yoonu murid ñun dañoo a sonn ah. ndax ne da ngay nekk jeex na nga dugg sëñ soñ bu ah, boo génnee sëñ soñ bu defee ne jeex na mm. nga ñëw sëñ Abdou Samad maanaam du jeex da ngay te fi ne sëñ Abdou Lahad képp mu tudd nii te kat kenn ci mag ñi wax ne ragaluma de waye de ñuy waxtane seigne touba sama ginnaw lay bañ waaw seigne Moussa Bassirou da ko wax seigne Moussa Bassirou ne si yàlla da ko waxane ne ko Moustapha mhm. mënu ko mënu ko bu ragal ñak mhm. dan na ko daan ko ragalal am dara te joxoko seigne touba dan daan na ko ndax man day limi may rëcc bu am naa lu may ci addu moy mhm. jeexal sama dund gépp ci lu ma yor jox ko seigne touba tok dan na ko bu ragal faatu doguma la de sama waji de neewon la li leen yalla jox jox leen ko seigne bamba ndax lo joxu seigne bamba dana ma sa xeyu te bu xewé koo ko jox du ko jël waaw ma da ko da wax man Cheikh Fall daa wax nan adom ah, ku seigne bamba jox do jeexal kuy xeexee doole jàmm doo sonn te nee na man maanaam may jox te ay doole dooleem lay xeexee moom doole suñ tubaab lay liggéeyee mm. ndax ñaari jëm kenn lañ mm. loolu da mm. maanaam da ko daan ne maanaam suñ tubaab mooy tax du yii maanaam boo ci tàmbali woon yem ki rek day doy si abdoulahat doy na maanaam boo duggoon ci moom nii wallaay la azim doy na ci kennal suñ tubaab ndax koo xam ne dafa taxaw ne suñ tubaab ju amul doom suñ tubaab amul rak suñ tubaab amul mag ndax loolu li koy firnde mooy képp ku naan doom la ci moom daa jël doom ja jaay daa jël njuréel ga jaay jëndee ko ak taalibe ñu koy digal dañuy digal taalibe di ko tere la ñuy taal taalibe yi mm. nee na képp koo ne rakk la non noonu mm. kon léegi kon kon sëñ Tuubaa la koo xam ne yow amoo rakk amoo mag amoo bàyyi sëñ Tuubaa Mamadou Rasuul Seex mi bàyyam dafa jëblu ci moom na mm. ñi nga xam ne ay ndey lañ ci moom mi nga xam ne mooy waajur maam Ceerno jëblu ci moom soxna Awa Buso jëblu moom xam nga li a kéemaan sax ñu bari xamuñ ne fi mu ne sëñ Tuubaa moo tax luñ ko jiñ moom a aadama ak ci moom waaw moom ah. ndax ginnaaw bi mu yoonu murit hmm. suñu Adama Gueye moo njëkk a jébbalu ci góor waaye soxna aw busu moo njëkk a jébbalu ci jigéen Adama aw njëkk a jébbalu ci moom waaye nag lu jiitu yoonu murit na ñu jébbalu ci woon ci moom hmm. am na ku naan sëñ Modou Gueye benn na ci moom waaye ah. Adama njëkk a jébbalu ci góor awa njëkk a jébbalu ci jigéen la demee waaye xam nga li ci ci li ci li ci li ci a yoonu daal luy gis nga yoon wi hmm. xam nga maam Thierno maam Thierno Birahim hmm. jamonoy jamono Mamadou dafa am bis mu bokk ak bi hmm. eh, di barkeelu bi mu bi mu nee bisimilah Xaalid ibnu Walid sëñ tax ko daan daayu téye loxoom daan na ko maam Thierno ko mënu jublu mënu ko dañoo wax ne turam bu turam boo ko tuddee ñam ci lekk mu rees ci jàmm sëñ tax daan na ko maam Thierno <laughs> Thierno Ibrahima Fall mënu ko Mbàkke mënu ko bu ngeen waxatee bisimilah yi ah. tur wi képp lay déglu ngeen ngeen ngeen teg ko ci ta boobu li gën a yéem mooy moom sëñ Tuubaa darul yéey gis nga boo boo gisee sëñ Moustapha bi muy jàng sànq bu daaneel ma mm-hmm. maanaam waxtaani sëñ Tuubaa munoo wax lu génn mi loolu baaxat mm-hmm. mm-hmm. wax jenn wax sëñ Tuubaa jenn may jum kawe kawe kawe kawe boo koy xool rek du sori du sori dara da nga koy gis ndax bi mu naan nafa an yi ba biyee yan fa ma waraa mbooleem xeetu nga ne li ñuy wax mi ngi biir foofu yalla man la jariñ sëñ Tuubaa nee na ku man boo amee dara ci yàlla bis boo sante yàlla gorewu yàlla man képp la jëriñ la wax man nafaan yi hmm. wa bi te ci man yan fa nga ci lañuy jëriñoo waraa mbindee fi amul keneen koo xam ne Sëñ Tuubaa nee na hmm. maam dana jëriñoo ci man hmm. nee na man képp la yàlla jëriñ bi ma yàlla jëriñee man maay jëriñ ñeneen ñi loolu mooy nafaan yo bi yan fa waraa te fi ne baatu waraa moom la ko war a gars yi war a bàyyi xel boo gisee mu naan baatu waraa 217 la jàpp baytu mi loolu baax dafa am lu wax dafa am lu tax baatu wara dafa bari mooy sànq li ma ne Sëñ Tuubaa du nit suñu borom da koo sepp ci mbooloo mi teg ko nee daa yi teg mbooloo mi nee suñu borom nekk ne loolu nu mu mën a nekkee boo xoolee jërëjëfe doon la ko leeral waaye ba tey taxul mu leer hmm. du leer mu xam tax du leer feeg yaa yi ngi jàppee sëñ Tuubaa nit du sotti faaw ñu xam ne du nit sëñ Tuubaa doom yi duñu ay nit ñi mu àndal duñu ay nit mam ca dafa duñ no duñ ñooñu duñ ñooñu moom waxal na ko boppam sax waaw kay bokku ci hmm. li ay li gën a gaaw mooy nasan ah lii hmm. suñu borom ma nocci ma teg ne lekkoon kon nekk nii ay nit nekk nii léegi am kenn ku nekk ne koo xam ne xamul lu mu doon léegi nag waaye léegi nag mooy àlla moo xam bi àndal abdul xam ne kon day mel ni kon yàlla léegi mooy xamal jaam ñi kan mooy sëñ tubaa moom dañoo toog noonu moo tax may la suñu borom bi boobu mooy fàttali jaay ne leen sëñ tubaa moom mi mooy ki leen xettali waaye baatu waraa boobu mooy nazar ali minal waraa baatu waraa boobu sëñ tubaa da koy jëfandikoo lu bare bare bare bare ndax moom la yàlla jox xéewale adduna yi alaxira ngir mu war a jariñ mbindeef yi moo tax bi naan liikun bi kun sarmatan wajal masi reza jaw fal fara lii la waraa waaye waxut waxut moom mm-hmm. waxut jaw fal fara lii jaw fal xaraa li la war a misal ma xaar yi nii mboolem li ko yàlla jox mu am ko ci njariñ ak i may tam jële ko ci tukkam bi sëñ tubaa nee naa waraa ko yéene te waraa kenn génnu ci barke sëñ Tuubaa Trump mi ngi rek nekk nekk président États-Unis ah. wallaay la xam ci biir waraa la bokk ah. sëñ Tuubaa nee na feeg mi ngi di lekk di naan sëñ Tuubaa nee na barkeem maa ko yor maa yor barkeem nee na ñu nekk ci réew mii te duñu ay murit hmm. nee na te gëmuñu ma hmm. teewul seen barke maa ko yor seen dund maa ko yor hmm. ndax dañoo dugg ci biir waraa waraa daal lépp la waraa dañuy dañuy wan fange bi waraa yaa mu neen an mit fange ba tey mi ngi waraa waaye yemu ci yaa malikal mulki yaa man jàllaan xawrin irham jami al wara ndax boo gisee sëñ Tuubaa yërmande ñi am ci wara dafa xam ne moom la yàlla dénk wara comme moom la yàlla dénk wara jël njëriñu wara jox ko ko te moom mu am yërmande ci ñoom faaw mu leen jëriñ loolu sëñ sëñ Amadu wax na ko sànq bu la yàlla joxee àdduna jox la àllaaxira jox la ajjana maanaam jox la lépp dara desatu ji waaye nag li ci gën a kii man mooy am na sew-sew maa ngi ndéw lixtaarahu Muhammadu fi mu ne adduna moom dafa bari lu ci ne àllaaxira dafa bari lu fa waaye daf ne man la ka ni dunya xuraa samadu waaye maa ngi ndéw lixtaarahu Muhammadu yéen moo sama waa ji moo ma ne xaaral ndax adduna ak àllaaxira dafa bari lu ci ne ma tànnal li gën li gën ci adduna ak li gën ci àllaaxira ñu ànd ak yow loolu moo tax sànq may la murid yi murid yi ñooy bagage bi ndax kulli yet yi moo ci satan te ak xarat mm. waaye la dayka du xarat loolu murid yi ñu ngi ci biir mm. murid yi ndax sëñ Tuubaa nee na yi ñoo ci man sama biir moo tax fi ne murid yi moo ko gisee lañ wallaay la xasim gis nga ko gis nga réew mi ñi fi ne te ñooy murid barke sëñ Tuubaa ku ci gis murid da lay yéem waaw sax am nañ ñoo xam ne dañ naan mais maam qu'est-ce qu'il faut faire pour être murid hmm. maanaam waaw da ngay def bu nekk dem Touba jébul rek waaw dem Touba jébul rek dem Touba rek jébul sëñ nangul la waaw da dem Touba rek jébul sëñ soxna xari mo mo mo mo sëñ baara dafa nekk Kaolack dafa am bis ñu dem fa di ko jàngal xasida bi ñu jàngee xasida ba noppi mu ne jàngal leen ma jërëjëf sëñ Tuubaa ñu jàng ci jërëjëf sëñ Tuubaa bu bu dal euh, sëñ jiit ëkkatil tuuti jërëjëf sëñ Tuubaa dafa am solo ëkkatil jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaaraama maam Cheikh Ibra Fall gis nga jërëjëf borom Touba fi ne mooy rahmaan ak rahim ah. waaw fi ne moo tax moo tax boo xool maam ñi ñi ñi xam xadat danañ ko xam ah. moom foofu la dugg te rahmaan ak rahim dara yàlla génn ci moo tax bi mu naan bismillahi bi mu suñu borom tuddee aw turam mm-hmm. muy benn tur muy ismu zaat mm-hmm. ñaari dàkkantal yam teg ñaari sifaat yam ca teg mooy rahmaan ak dara lu yàllay jariñ doomu adama te génn te génn te duggul foofu amul moo tax suñu tubaab mooy rahman mooy rahim mm-hmm. moo tax bi mu ne yaa malikal mulk yaa man jàllan xari irham jami al wara moo tax moo yor yërmande mm-hmm. moo tax mu def loola moo tax fi mu ne baatu jërëjëf suñu tubaab am doole lool mm-hmm. soxna Xadi Baara nag daan nañu jàngal leen ma ko jàng ko ba noppi mu ne suñ muudu baara day sama mag ju baax ba moo ma waxoon ne ma lu waay di tudd ci làmmiñam lii ko ëpp doole te suñ muudu baara moom na suñu am ci sët daan ne daan dafa am bis madam dem ci moom daan na man day mbacke dafa am lu muy dégg mu naqari ma nak mu ne mu ne yow dem mbacke dara waru laa daal naqari ndax suñu baara moy sa bay nee na mu ne ana lu mu damay deg ñuy wax naan euh, lu bon bon bon wara wara jur am mbër wara nama dal wara murid, murit si mudu ba dal nako dañuy fen ba do fen la ko rek dañuy fen dal nako xana xanaa xamoo jigéen lu mu bax baax baax mënut a jur murid dal nako ko jigéen mënut borom këram lu ko may murid dal nako murid seigne touba len jur nak seigne touba hmm. murid seigne touba len jur waaw man seigne touba mu jur mom wallaay lancim waaw ndax fi mu ne li koy tegtale mooy suñu tubaab moo ma gënal sama ndey gënal ma sama baay gënal ma gënal gënal gënal gënal ma ludul man mm. gënal ma sama jëmm te nit amul ludul jëmmoo fi ne yow loo bëgg bëgg sa ndey ak sa baay fi mu ne sa jëmm sa sa sa sa jëmm ko ëpp doole ndax tey ji bu ñu la bëggoon gàllankoor ci mucc ko dem ca kon sëñ Tuubaa ci moom gënal la gënal sa ndey gënal la sa baay mm. moo tax moo tax mu gën ci yow nga gën koo bëgg mm. sëñ Bay Jaxate dafa am la sëñ Abdu Lahat dafa ne bu ko nag dara sax bàyyi gi nga bàyyi sa ndey bàyyi sa baay ñoo jox ko sa bopp mu mu nangul la ko rek doyoon na teraanga seen diggante. waaw kay rek mooy mooy ko sa mu nangul la ko. loolu rek doyoon na waaw <laughs> ba naan Mbàkke yaa ñu gënal ndey yaa ñu gënal baay maa gën ci yéen seen i ndey maa gën ci yéen seen mo baay li mu leen mënal suñu leen ko fi ñëw daanaka fii ku fi ñëw mucc nga mucc waaw xam nga Cheikh Ibrahima dafa jàng Sëñ Tuubaa mm-hmm. waaw dafa jàng Sëñ Tuubaa te gars yi jànguñ Sëñ Tuubaa mm-hmm. gars yi diine la ñuy fekk diine mi ci biir Sëñ Tuubaa sànq wax na ko l'islam mm-hmm. bi amee problème suñu borom da ko da ko mu lijjanti ko te Moussa Sall day wax Moussa Sall day wax naan maanaam yent bi ak Sëñ Tuubaa kii dañ koo wooteloo kii dañ koo wooteloo waaye dañ koo lijjantiloo ci biir woote bi te ku ñuy lijjantiloo dañ lay bàyyi noo ko lijjantee baax na moo tax yoon wi kenn du ko lijjanti mhm. ndax Sëñ Tuubaa daa ñëw di lijjanti moo tax da ngay bàyyi Sëñ Tuubaa lijjanti ko moo tax murid yi képp koo gis muy dem mhm. baal noonu ci bagage yi la bokk mhm. waaw murid yi képp koo gis muy dox Abdoulaye Touré dafa maa wax keroog Porokhane ne ma Mame Thierno mu ne ma murid fu mu nekk foofa baax daan ne man su ma yëgee jàng xasida su ma xëyee damay jàng daan ne waaye bu ma sonn yëg nelaw damay xam Sëñ Tuubaa dafa maa nelaw loo tey damay nelaw <laughs> waaw te sax man nelaw ñu di la ko fay nag waaw na xamul tax hmm. ci tënk rek hmm. xam li yëf yi ak lii hmm. wa shurbi wal manam wa xayri xayri daaka yaa rabbananam jaxanta fidri fa waxa kulli saw bi jaxanta noom bi ka xiyaamil xaw mi i jaxanta ami wa sharabi yaa karim zikri wa shukru wa saban la yarim naajidi ko l yow wa qablal sama lekk sama naan sama nelaw dem naa sax ba moo ma woor gaa yi woor sama ñàkk woor moo ëpp doole woor koor gaa yi hmm? waaw te loolu loolu du Sëñ Tuubaa de déedéet loolu murid la hmm. maanaam faaw gaa yi bàyyi xel ne man Mamour li ma gëm hmm. mooy Sëñ Tuubaa li ñuy wax ci ay mayam ci xasida yi moom weesu na ko weesu na ko de murid yee tax muy wax lépp loo gis ci xasida sëñ naan sama may nangam yow mi koy jàng yow lay waxal waaye waxut keneen mm-hmm. man de lépp lu ma gis sëñ Tuubaa bi ni ko ci xasida mm-hmm. bu dee ay may la damaa jàpp man ma koy jàng man ay may sànq nee naa la ba da gisa boo daa mm-hmm. daan def bu bu egsee da ciy def loo xam ne kenn ci yàlla mus si mus egg suñu borom daal di koy jox rahman jox ko rahim sëñ Tuubaa damay xam ne su ma ko weesoo kenn mënut a egg si fi ma ci egg si ak rahmaan rahim nee na suñu bopp daan ne daan damay xelal daan ma sama sama sama na ma te nga ko def xasida ngir boo ko rombee boo ko fi bàyyi sa taalibe yi mën faa egg nga xam ne kon rahmaan ak rahim boo ci jàppee hmm. fa sëñ Tuubaa eggoon ba koy bind foofu la lay yóbbu tarkalla teel foofu la lay yóbbu sëñam di hmm, nañ ko fekk rek comme ni mu ko wax noonu rek hmm. ndeysaan maa ngi ñaanal soxna ma Fatou Mbacké mu yàgg waaw wallaay murid la fii ñëw dinaa man de maanaam bëgg sëñ Tuubaa daal. Hmm. moom moom moom laa jiital ci sama lépp. wallaay ah, te loolu rek mooy mooy mooy li nekk sëñ Fallou Baye euh, jeex na xam nga sëñ hmm. Tuubaa. Hmm. dafa dafa yéeme mbokk mi wax na ko léegi. Euh, dafa wax ni koo seen muy ndox di dem rek. bi di seq ay tànk di teg ak tegaat. bu ko laaj fu mu jëm sama barke lay sàkku. lam yabqa fil xalqi. si waa man yatlubu baraka barakat yi. waxat ataani matlabu. ku mel ni moom dafa amul ci àdduna. Baye Moussa Ka dafa wax ni du nit. Mm-hmm. du jinne mm-hmm. du malaayika. Mm-hmm. du kaa inaatillaahi du Moussa Ka. moo tax fi mu ne waxtaane ko sax xam nga lu la cay dimbali. ber ko xam ni ni ko yàlla def defu ni kenn. waaye mënee su koo misaal. waaw ba mënee fu laa misaal. yaay géej gi wër. waa Sénégal. kenn du la jàll genn gaal. waaye say duus nag moo tooyal xarnu fu waaye nekk di jariñu ci àdduna. sëñ Touba. boo ko yëgee ak boo ko yëgul nafa ani wa bi yeen foxlu wara léew si lesi uridu wan fax bi yel na ca ni lu ma neex moo neex yàlla neex naa ko neex yàlla chitu hmm. ladi chaa al ilahu hmm. wal ilahu yachaau ma chitu bila hmm. durrin wala waxtaan wi nag li ci gis mooy la daleen séeréer bi dafa ay jàng rek bi mu wootee ay jàng ñu ñëw waxtaankat bi ñëw mu ni ko ci looy waxtaan mu ni ko ci sëñ Tuubaa mu ni ko maa ngi tëddi bañ demee ba fajar daanu yi ku ne kii naa ciy Sëriñ Tuubaa mu ni xamal naa ni fi ngeen di mujjee waaw mëneen ngeen ko njëkkee mëneen ngeen ngeen ko njëkkee nga xam ni sëñ bi moom daanaka loo waxit mm. da ngay mujj ni cey moo tax boo nee Muhammadu Rasulullah mm. gars yi ni sallallahu alayhi wa sallam mm. sahaaba yi ku baax yi ñu ni radiyallahu anhu waaye boo nee Sëriñ Tuubaa malaaka ya ak mboolem gars yu baax ñu ni la est-ce que yi cey kooka est-ce que yi cey kooka nee na damay tagg rasulullahi ba mu feeñu ma ni ma taggal ahmadou bamba daan ni yàlla moo ma xamal te naarub libanee la nee na laa yàlla ma xamal ni ku ku kuy tagg sëñ tubaa sëñ tubaa ku ko bëgg tabbi àjjan sëñ bi bi ni ko danoo nëbb sa gis ci man ku dégg turu ahmadou bamba te mu neex ko yàlla jéggal ko kooku moo bind ni man faatahu muhammadul muxtaari min mudarin wa faatahu xaadimul rasulu maqbul kuy xool ba yàlla raw la sëñ tubaa raw la perte nga moom loolu moom jurul wax waaw sëñ tubaa moom comme moom ko mooy mojisaati axiru samaan yii ram xarnu jëm ci naan sëñ tubaa axiru samaan gi moom mooy mojisaatam mooy mooy li ma wax nii rek mooy mooy mojisaati axiru samaan mooy ram xarnu jëm ci naan xam nga yàlla bi mu bind bi mu bind nit ñi dafa waxaat malaaka yi nit isqaala rabbuka lil malaikati inni jaailun fil ardi xalifa dafa def nit mu doon xalifatul ard waaye dafa am beneen xalifa nag boo xam ne dafa wax ci suuratu kahfi ni fa wajada abdan min ibadina aataynaahu rahma rahmatan من عندنا وعلمنا من لدنا علما لولو سيغ توبا لا سيغ توبا لا يالا جيكتي جول يرمانم جوخو كوم بغا ييرم سي سيغ توبا لا خول غير ييرم بارك سي امو دو با سي ماي جوب المصري واخ لا خول واخ جوج اك واخ شيخ ابراهيم جوب المصري نينا سيغ توبا موي خليفه رب العرش bil ardi nuuruhu bihi yarhamu rahmaanu man kaana rahima mooy ki wutu yàlla ci kaw suuf ku yàlla bëgg a yërëm sëñ tubaa lay xool ngir mu yërëme ko sëñ maamam sëñ tubaa du du du du nii nag teg ko fii naa nangam ak mooy kii mooy sëriñ daa déet sëñ tubaa mooy al munqisul mooy ki nga xam dafa war a xet li mbindeef loolu moo ko tax a ñëw fii sëñ tubaa mission moo ko tax a ñëw fii wax naa la ko léegi li li li am nii xam nga ñi ko wër rek doy na. waaw groupe bu njëkk ay Moussa Ka wax na ko karaamaate rijaal yi sa mooy sa bu bitum ne ah. barab yan war a màggal barab bu màggal ba bu la sa gonee toog boo tax may wax ni Sambay way juru sëñ Sambay maa gi dégg ci sëñ Gana Messere Maxtaar ah. xam ne daa dem ci dëkk dégg ñuy bàkk ah. naa diw yaa doy diw yaa doy nee xaj bu dee la fëgg mu jóg di daw di bay mënu leen yéen ki naa yaa doy li ma man mënu hmm. te man mi ko man jàggi nen marur mbër maa wax marur léegi ku mënul loolu kay yow <laughs> kay doon nga am di def loolu waaw te te li ci gën a yéeme mooy ah. alxuraan dafa yéeme xam nga yàlla dafa ne wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut hmm. léegi di woo dañ Tuubaa wax sëñ Masamba ni ko seeg demoo Kawlax doo faatu waaw feeg demoo Kawlax doo faatu bind na ci tawasulam daal di ne kataballahu tabaraka wa taala daal di wax ne ki bind xarab yii hmm. Hmm. mooy kiy wàcc bésub altine ñu denc ko bésub àllarba la ah. àllarba waaw ah. loola loola day day lu kenn day lu kenn xamut day day day day lu kenn xam waaw mooy la naar ba waxoon ci sëñ Tuubaa rek hmm. wala wusi na sis una alihi daraja waxuma laa dara warus dallu sëñ Tuubaa sax hmm. buñ ko peese woon ak nitu yàlla yi mu war leen hmm. te balaa nga ko doon xam tey jii ci zahir rek nga teg warus dallu sëñ Tuubaa fii teg fi nitu yàlla bi gën a mag bu ko juboo bu bu ko nit jubee boo nee lee warus dallu sëñ Tuubaa la mu bafa nitu yàlla ba tey wuti warus dallu sëñ Tuubaa waaw wuti warus dallu sëñ Tuubaa moom mooy mooy ku ku kenn xamul ci kaw mm-hmm. mooy ku kenn xamul ci kaw suuf mm-hmm. bokk na ci li ci gën a yéeme ci moom mm-hmm. mooy mooy li xayrin taxa bil mun taxa kullu zi saxa wayan xuu bi i nax yi dun wa zu taxa waaw ñi texee di ak ak ak ak ak ak ak ak ñi ñi ñi nam ñi ragalul yàlla ñëpp dëgmal nañ ko du kon ànd ak moom ku ne rek li nga war a gën a mën a sante yàlla mooy la mm-hmm. mm-hmm. beneen bi wax nag laka sukuriya mm-hmm. ala man sajadu yaa man li xayri yi saa xaman laa yasjudu lool loolu boo ko waxee am na ñoo xam ne seen xel danañ dem ci ñu dul julli ñu du war waaye sëñ Tuubaa waxut sujudu sujudu zahir bi ñuy gis suñu borom moo moo layal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dafa ne yow ma yuksafu an sa suñu borom dafa ne yow ma yuksafu an saaxin wa it awna ila sujudi falaa satiwun loolu àllaaxira lay amee waaw bés bi yàlla tiim jaam ñëpp ne leen ñi ñi doon jaamu yàlla te muy dëgg bu ma leen ne sujjootal leen ma foofa danañ mën a sujjoot mhm. sëñ Tuubaa nee nag suñu borom dàqal na ma fa ñu mënta sujjoot foofu mhm. waaw kon ku ànd ak moom ëllëg mhm. ca ñuy sujjoot ngay bokk kon sëñ Tuubaa lim lim lim lim lim ñu dig. lim ñu dig te gisaguñ ko. moom lañ gën a gëm ni lim ñu dig te ñu teg ci suñu te chaque jour te chaque jour te chaque jour. Mhm. kennam gi di gën di leer. Mhm. muy muy muy muy gën di wan adduna du ma moroomi nit ñi. Mhm. aw ñoñam bi gën a tuuti sax xëjut ci kaw suuf. si yëpp la da daa naan. bu fi benn murit ñëwati di ma ñaan àjjana ndi am ngeen ko ba pare ku fi ñëwati nag may ñaan xéewal ndax xam naa ni bu ngeen ko amee ci Sëñ Tuubaa rek la jëm waaw loola loola dara kawe ko te beneen bi mooy Sëñ Abdoulaye Jaxate wax na ko ñeneen mm-hmm. Sëñ Abdoulaye Jaxate ñëw na fii jox ma ñamub àjjana mm-hmm. waaw leeral na ñoom wameel ak lépp ku mën a nekk ci àdduna ak dina jële ñeme àjjana àjjana ba mu ne di ko joxi taalibe sëñ Tuubaa kooko kenn xamul loo doon waaw kooko kenn xamul loo moo tax sëñ sëñ ma sëñ Tuubaa ne woon sëñ ma bànji mm-hmm. euh, euh, tànn gi ma moo leen mën a may seen melo yi waaw ñun ne melo yi ne amul ci kenn ko xam ne ca barab nga mun faa dem bu ne ko ci barab benn murid bu am kattanu dem fa amul mm-hmm. moom moo ñu fekk jabarab dañu tànn xam nga loolu ci géemaan moo tax ne tànn gi ñu tànn moo ñu may doole jooju te nee naa kulliyati yi mu sa tan te axarat baax du mu xi boobu kulliyati bi da cee bokk maanaam kulliyati yi boobu biir murid yi ñu ngi ci mm. fi ne sëñ mu jow baxa sëñ Tuubaa da koo defaloon tàkkusaan ku nekk mu def àjjana sëñ bi loolu nu mu nekkee maanaam tàkkusaan ku la soobee nga dem àjjana Cheikh Samba Diarra Mbaye diggante boobu muy nettali sëñ Tuubaa bi mu ko wanee ay soxnaam sëñ ma Samba Diarra wax na ni diggante boobu li muy gàtt gàtt gàtt nee na na junniy at biir àjjana soo ko dellu si maanaam diggante bi li muy gàtt gàtt gàtt nee na junniy la fa def soo ko dellu si nga xam ne mag ñi moom demoon nañ ba wallaay laxas lii murid yi di wax nii te gars yi di ko yéem tegoon nañ sëñ Tuubaa fu ko raw mhm. tegoon nañ sëñ Tuubaa fu ko raw sëñ bay Sarr kaddu gi mu ko doon wax dafa am bi suñu daan ne ko sàllaw mbay saar mu ne ko bàkk mu ne ko dem naa ba xam ne mm-hmm. li ngay wax dëgg la ci yow mm-hmm. waaye waaye kaay yi dinaa la neexal mm-hmm. daan na ko daan na ko mu ne ko mu ne ko mu ne ko Babacar mu ne ko Mbacke mu ne ko ngir xamal la wérug li li ngay wax bu yomal xayaamee may naa la ñi nga xam ne naa leen samay doom lañ nga doon seen bàyyi sëñ Mbaye Sarr waaw daan na ko ñii ñuy tuddee sama njaboot maanaam ngir kaddu gi may wax ngir wéral ko may naa la bu yomal xayaamee ñii ñuy wax sama njaboot nga doon seen bàyyi maam sëñ Tuubaa moom qul huwa allahu ahad boobu mu ne na ko waaye matu ko mm-hmm. foofu la ne mm-hmm. dafa ne sëñ boo gisee turam yi mm-hmm. man ma bëgg sëñ Abdou Lahad mooy turam bi day tegtale kenn sëñ Tuubaa man lépp loo xam ne day tegtale kenn sëñ Tuubaa lépp loo xam ne day wane bëgg sëñ Tuubaa man ci loolu lay dox li ma naan gars yi bis bu ma faatoo bu ma bëgg sëñ Tuubaa ma rey mm. loolu waaw man bi murit bu faatu jarut autopsie bëgg sëñ Tuubaa moo rey murit boo gis murit bu faatu jarut jarut murit boo gis ci tooy lañ dëkk benn murit bu biir man bi may ñëw yàgg ma koy wax ndax daanaka damaa damaa xaw xëy na la waxoon yent bi mhm. aqdimuhu ila duxul janna mhm. daal di xalaat yi wal mun a wal min na mhm. daf ni liggéey may liggéey yoon sam-sam daf ne du ko def tey ci saa yi du jugee maanaam liggéey bay dox daf ne ba biir àjjana du ma moo tax am na ci mag yi ñoo xam ne bi leen suñu taw bu wooyee a wàcce dañ ne manqué mbàkke ma mam ñoo ñoo lànk ndax yaa yu njëkk yéeg fopp te wàcce goo waaw yaa yu njëkk yéeg te wàcce goo am na ci mag ñoo xam ne bi leen suñu taw bëggee wàcce ñoo lànk na ci mag ko léegi sax kon faaw ñu soppi liggéey nañ soppi liggéey bi daan na ko rek léegi da ngay def kon topp armée bi ñaaree bi saa boo xëyee néew boo jéggi mm-hmm. mu texe li gën a kéemaan mooy da ko daan def waaye dara tarax laay mm-hmm. waaw te mënees nañoo tudd turam waaye teggi nee tax am na ci koo xam ne sëñ Tuubaa bi bind loo daara ni mm-hmm. sëñ Tuubaa da ko def ci kees gu rafet nga xam ne li mu ko daan génn bëriwul dara bu tawat ji bare wala am ñu bari ay aajo sëñ Tuubaa ci la la daan indi kees gi ba mu ñëw sëñ Tuubaa génne ko bu ko génnee day téere bi daan ne haasa nooru daara lay def da koy wërale mboolem mi dafa bari lool waaye suñu ci daa wax naan sàllaaw bu ma ko génne ci kees gi daa daa daa ubbi kees gi génne génne benn benn mbàjj da ma lëmasee nu daare bu ko lëmasee ba ba mu bari lool bu koy taxarte bu ko taxartee ba fii may wax leen booba kenn daaw jàng nu daare léegi la sëñ ji gaa yi ni jàng nu daare de boobu daa wax naan bu ma bu ma nee xaasa nu daare bi sëñ Tuubaa nee na képp koo xam ne gis nga ci wenn araf te ràññee ko maanaam gis nga ci alif te alif te wóor na la alif la mbaa nga gis ci am mim wóor na la mim la sëñ Tuubaa nee na mën ngaa dellu sa aajo faj la booba amul ay jàng noo daal ndéedéet booba gis nóoru bi xàmmee ci araf la nga xam ne ko daan da daan génne daan ne haza nu darin haza nu lay wax bu ko defee ab biir daal di ñu delloo am na cheikh boo xam ne daa da daroon ñëw ngir jébbalu si waaye daa daa wax ne bi may dem tey man dama bëgg sëñ Tuubaa ma deew mu seexal bi mu egsee fekk sëñ Tuubaa génn nu darini bi di wax wax kaddu ci ne wenn araf ca la dem ca déwén si mu ñëwaat di siyaare bi mu ñëwee sëñ Tuubaa sëñ daan wax ay mu ne ko Mbàkke yaa ma seexal daaw sëñ daan wax lu ma la seexalee ko sëñ Tuubaa yéemu ci lool waaw doonte dara ko jaaw yéem kon sëñ Tuubaa dootul yii te loolu kooku bu fi may wax yow nuyuwut sëñ Tuubaa joxewut joxewut loxo joxewut addi waaye waaye ci kaddu kooku cël cël cël moo tax fi ne xasida feeg feeg sànq wax nga ko gis nga sëñ Tuubaa feeg demoo ci géej gi bindoo xasida yi jërëjëf wax na ko fi ba tey bindoo xasida yi doo sëriñu Cheikh Rafal eh. moom moo màggal gi barke sëñ doon sëñ Tuubaa waaw eh. bu yoboo nga ne bu yoboo nga ne mu wala boo ko doonee dangay faatu eh. ndax fi ne damay dégg sax benn bayit gaa yi naan xasida di faaxat xasaayidal kiram wala ñu ne xasida ti faaxat xasaayidal kiram ñu koy firé ne sëñ Tuubaa nee na sama xasida yi ñoo féete kaw xasida gaa yu baax yi ko firé noonu dax nee na mu faral la def du jamoo daf ne xasida tii sama benn xasida la wax faaxat moo kawe xasaa ida xasida gaa yi baax yëpp bu ñu leen boolee teg ci balance ak ñoom ñu ko bind sëñ Tuubaa ne da jël benn tuxat mu tax dara xeen sëñ Tuubaa ne ko teg ci wat leen ñoom ak seen i xasida waaw loolu mooy sama benn xasida xasidat yi faaqat xasaidal kiram mm-hmm. waaye wali taxudu xabaran abaran xayral maram mm-hmm. gis nga fi ne boo ko toppee détail gis nga bayit boo ko toppee mm-hmm. da ngay dem sax ba xam ne nekkete sax xasida xasaidal kiram sax nekkete nekkete daanaka bariwul ndax xasaidal kiram sëñ Tuubaa dara wax naan mooy xasida goo xam ne bi ko suñ ki ko bindee bi nga ko bindee da koo topp topp topp topp topp bam bam set ci mooy amul nafs bakkanam tàbbiwu ci amul bànneex àdduna newu ci iblis newu ci nee na ñu yëgal mi suñu borom nee bu ñu yëgalee bind mi am malaaka yoo xam dama leen koy saytu loo buñ saytoo bind mi dañ koy ñoo xam ne ngis la ñuy seet ñi seet yëg sa bopp ñi dañuy seet maanaam bu ñu seetee yëpp rek suñu borom nee na sax malaaka yi ci bind <laughs> dana xarañ ba dana dana nax malaaka yi waaye man yàlla laa yax fa wala laa yax fa mm. borom man dara mënu ma rëcc mm. bind yi bu ñëwee ci man suñu borom nee na xool su ma xoolee mm. dana ci génn lépp lu dul man dama ko ci génne dayna yeen yeen saay sax ma génn ci da ma génn ci loola am lu ci des waaye yàlla nee na man damaa am ful la man du ma jël desit mhm. man ku may jox rek may jox lu mat sëkk mooy tax suñu tuwaa daan wax naan euh, maanaam buur wata war lañ koy jox moo tax daawul julli ci ñaari yàpp benn yàpp mhm. daawul julli ñaari waxtu mhm. suñ suñu borom ne su ma mbind mi mu am ci dara loo xam ne du yàlla suñ su borom ne damay damay teg fee mbind mi nag soxlu ma ko donte am na ci lu baax nag suñ tuwaa nee na xasaay dal kiraam nag suñ tuwaa nee na mooy koo xam ragal yàlla di jaamu yàlla seet seet wicc ci lu ci borom topp sunna topp sharia am xaqiqa am baatin bind ba suñu borom yégal bind mi malaaka yi seet ko mu seet wicc suñu borom seet ko xasida gi seet wicc maanaam nga xam ne mu wax nii rek. xam nga mm-hmm. dafa yéeme dafa wax ni. xam nga way xam ni loo arsa rabbika fawqahum yawma isin samaniya aras juróom-ñetti malaayika ñoo ko téye. aras te malaayika. du ay caaxaan. malaayika dafa yéeme. lu doy waar la. sëñ Tuubaa dafa wax ni bu ma jiitu woon. alxuraan li tax gisu leen ci sama tur. alxuraan dama fee jiitu. waaye kon di ngeen ci gis waskur fi kitaabi Ahmadou Bamba yu bëri. waaw loo jiitu xabla nuzuli la wajadu ma shukira fihi kasiran. waaye nee na yàlla daa am lu ma ko fay. saa yu ma bindee mm. aras di rëg rëg loolu moo indi ida katabtu tashaasul baaqi sabaxat malaa'iku tibaaxi sëñ bi li sëñ Fallou doon wax rek moom dafa waxoon ni bëgg sañ sëñ Tuubaa doy na ma ba bëgguma leneen mm-hmm. xubbi la ko dëxra yox nii mm-hmm. am xubbi siwa mm-hmm. nee na sëñ Tuubaa bëgg ba bëggatuma dara daa di ni nga benn euh, ku ñuy wax euh, asayxu atijaan bun baabul alana yi dafa wax ni xaaral kadi xadimu min al kamaali ajaiba wa maqaamu al uyuunu tahaaru lam tasmail asmau qattun bi mislihi wa sabihu lam tubsirul absar daan ni bët moo mës ta dégg ku mel ni sëñ Tuubaa bët moo mës ta gis ku mel ni sëñ Tuubaa nopp moo ko mës ta dégg hmm. adduna moo giñ ni dootul andi ku mel ni sëñ Tuubaa kon sëñ Tuubaa ñun rek noo ko am waaw misaal yi faata waaw misaal yi faata kon sëñ Tuubaa ñun rek moom léegi nag sëñ Tuubaa dafa xam ni ku am loo xam ni yow dong yaa ko am hmm. da nga koy jàppe noo xam ni kenn du ko jàppe neen nee na bi kenn du ko jàppantu di di cofaka nanga da nga ko naa nënk ni ko nënku ni ko katiw ni ko tarawlis nee na noonu la ni jàppe sëñ Tuubaa da nee na noonu ku ko jàppe sëñ Tuubaa kaw nga jëm soxna may muru nañ Mbàkke nee na kaw nga jëm hmm. dooroo gis suuf wa man tamashaka hmm. bi sayqina bila sakkin wala tadaddu bi naalal ola li annahu xayrun min assudaani bi sarqi wal maghribi wal biidaani sëñ Tuubaa boo moo gën penku gën soow gën nit ku ñuul gën nit ku weex lim def ci diine kenn du ko mas a def yonent bi mooy xayrul xalq te noonu yi daje woon ak sëñ Touba hmm. ñoo gënoon a garaaw noonu yi daje ak yonent bi misaalum tubaab bee tax nu gëm Bamba gam gu wér hmm. dañoo raw ci ak bon te ñoo fiiroog sëñ Touba sëñ Touba ba muy dem moom képp moo ànd bam mu gañaayoo bay dem xalimaag daa ko topp yorul muuraake yorul dara garibun la daa jundil ida wa silaaquhu midaadun wa aqlaamu turayyasu bi sikri xalimaag daa képp la yoroon kenn jàppalewu ko kenn ah, dimbaliwu ko ba mu dem ba ñibbisi mi ngi noonu kenn jàppalewu ko garibun la daa jundil ida wa silaaquhu midaadun wa aqlaamu liggéey ko ba mu ñëw nag yàlla di ko fay mu ni ko ne ci yépp bokk xaj kuy wax asadu an laa ilaha illa allah na nga ko tàbbal àjjana ij'al rujuwan ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamil xiiraan goree di moom mooy ñàkk sant sëñ Tuubaa moom waaw yàlla sant naa la waaw goree di moom beneen ah, moo eh, yàlla sant googu mu mu nga sant radiya anni llahu wa rasulu wa ahlu badrin wa ataani suulu sakkarta ni inda jamii jinduka mm-hmm. jundulaayil xaalibuun ya nga xamee ni ba yàlla di digleel eh, malaaka yëpp su jootal mm-hmm. su jootal aadama ñooña bokkuñ ca mm-hmm. illal aalin la yàlla sant sëñ sama tur fa ma loolu ala malaaka yi ñu ngi ma fay woowee al abdul xadim te foofa kenn fenn jotewoo mm-hmm. waaw waaw fa safaati safa fa zajiraati la yasmauna ilal malayil ala mm-hmm. yaqsafuuna min kulli janib duhura mm-hmm. waaw loolu la waaw lu waay am xejji xejji xejji jotewoo fa ma loolu ala waaw te moom moo ne malaaka ya fa ne moom la ñuy sant chaque jour di ko waxtaane bañ ba wutal ko foofu tur dee ko al abdul xadim moo tax al abdul xadim tur tur bu doy doy waar waaw beneen bi mooy xasida yi ñuy wax benn benn bayit rek la naar ba waxoon suñ tubaab jawartu bi ñuy jàng di ci wax naan ku ko suulaal nga texe ak nangam mu ne ko moom de dañoo xër rek waaye benn bayit rek la ci waaw ku ko man texe ina lazi minal ilahi xusu xaaba anil kaw ni wa fii xusu bayit boobu képp la xasida maye na maxaama moo xam ne nii nii maqaama moo xamee ne nii day day day ump sax nit yàlla yi mm-hmm. waaw day ump sax nit yàlla yi mm-hmm. waaw dem na ba ci kii jàng xasida dana jëf-jëf yoo xam ne malaaka yi nekk ci di ci mbagg ñaari mbaggam yi duñ ko xam mm-hmm. waaw waaw leeri yonent leerub yonent moo faw xa leer guddul moom waaw te xasida yi seen i leer danoo jeqi leeri yonent yi ba ba ko ba génne ko waaw xaajat xasaa yi di xuluubal lan bi yaa maal malaykati inda rabbi waaw yàlla bañ na ko ba ba muy bindi leer malaka yi la ko jagleel malaaka yi bindun leen ci lu dul leer mm-hmm. moo tax fu leen neex jaar mm-hmm. waaw xasida yi nag da leen a jeqi ñoom it ba ba xamatuñ sax mm-hmm. ba xamatuñ sax fi ñuy tax bañ màndi ci waaw xaajat xasaa yi di ah xuluubal xamala lil arsi wahiya busarun lil kamala naabat xasaa anin nawafili waaw wala ura ani rida bi xaafili benn mbir rek la nit mën a jàpp du yàqule mm. muy muy muy xasida ak alxuraan mm. te sëñ dañu ko gën a yombalal ba jël aaya alxuraan yi def ko ci biir xasida yi teggee ko mu doon benn bi nag mu doon benn bi faf mm. waaw beneen bi <laughs> maase nañ ci ne àdduna ñi fi rawoon ñëpp doon xettali teg ëllëg turu yàlla la nam turu yàlla boobu ñoo ko sàkku ji turu yàlla nag moo ñëw dugal boppam ci biir xasida yi sëñ Tuubaa waaw walin xaada sirrul ismi fi nasri wan nasmi waaw lu dee fi baax ci kaw suuf rek dafa wut si sëñ Tuubaa hmm? moo tax wa xayra xayraatin hmm. dara mënu ko ak génn kooku mooy sëñ Tuubaa damaa bëggoon sëñ Njaga ñëwaat tuuti sëñ Jéeri fi nga fi nga fi nga ne baax na damaa bëggoon sëñ sëñ Njaga ñëwaatal ñu tuuti rek ci ay baytu xasida su ko defee eh, ñu door a ñu door a dellusiwaat ci murid yi sëñ Njaga Al waaw moom dañoo bëggoon mu indil ñu tuuti rek ci ay ay baytu xasida su ko defee ndax dafa melni sëñ sëñ sëñ jeri dafa am fu mu ne waaw su ko defé sëñ jaga felu ko tuuti rek ñu door a dellusiwaat ci sëñ jéeri وصل للحق من الحق المبين لي خاد ما بانا وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لخادم بنا وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلخي لم يعغ ذاتي جالب النيران أو جالب العارين في الخسران لم ينخني ضرر نار الدنيا واحتسني الباقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيو عني وخاد لي بقاءه بالمني كرامتي كتاب من رفع عني بي إلى الجنان مزنفى عني محام ما تنخد نخى نفوسا ولي سواي ساقه تنفيسا إلى سوى النخو انتخاء الموت نخا نفوسا كله بفوتي لم تنخني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي مت الذين كابدوني بدأ جدلو من موت نفسي ما نحاني جدلو ترسى عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي الممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفى عني ولم يضرني ولا يضرني كلي علي عولا دوسي عن الأمراض والممات بقى وعاسم من سمات علمني بقوله إليا ألفيت رافعا بيا المرضية لا شك في كونها بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاءني تامين خاتمة المناجات بالخط هذا الخط جعلني الله تبارك وتعالى عبد لو خليلا لو خبيبا لو ظاهرا وباطنا وجعل انه خديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل تبارك الله سنجيري ñu dem waaw waaw day day lu kenn xamut xasida ci boppam mooy lu kenn xamut gis nga sëñ Tuubaa dafa wax bind ne kataballaahu tabaaraka wa taala ci munaa jaatam yooya daal di ne sunu borom jël na mbooti wàlli hmm. yi yi njëkk ci adduna ba keroog yoomal xiyaam yëpp salbu na ko jox ma ko te dootu ko rékki ba ilaa yawmi diin waaw beneen bi mooy hmm. jëmmi loola nag sëñ hmm. tubaa dakaa def ci xasida yi sëñ tubaa da lay jox zawx wa zawx wal xufraana yoonu yàlla boo ciy tàmbale da ngay da ngay am cafka guu ngay am waaye boo boo demee ba ci biir dangay naan ku usuka tasqini bi haza busaaratin wali xutta faydan ax jalal baxra wal wabla ah. léegi boo naanee da ngay da ngay mujj set wicc mhm. sëñ Tuubaa da leen a setal ci biir xasida yi waaw wa inni bi maa il xëy bi zu tuxri war mhm. riyi mhm. dégg nga bu loo bu loolu amee nag da ngay xel di mandalaate yow da ngay weesu foofu da ngay wenn mandalaate wa an ni ya rayyaanun bi asfamiyahi kon xasida mooy lu kenn xamul lépp luy daje ci lu nit di am adduna ak mu ngi ci biir xasida yi mhm. sëñ Tuubaa dafa mas a wax mag ñi ne leen xam ngeen xam ngeen xéewal yi suñu borom wàccee nu mu doy mhm. ñu ne ko déedéet mu ne leen fukk la mhm. mu jël benn bi séddale ko yéefar yeeg yahud yeeg majus yeeg nasaraan yi ñuy di ko fooye ba di ci bew mu daal di jël juróom-ñeenteel bi jël benn ba xaaj ko ci jullit ñi ñii am ñii ñàkk mu ne juróom-ñett ya des nag du wàcc fu dul fu ñuy jàngee sama xasida yi waaw hmm. ah. daal ne kii jàngi sama xasida yi bu ko neexee dana dem bu ko naqaree dana dem hmm. daal di ne mu ngi mel ni koo xamee ne nii am dafa taxaw hmm. am ponkal téye ci loxom nday jorom ponkal téye ci loxob càmmoñam kii téye ci tànk nday jorom kii téye ci tànku càmmoñam am ponkal mu taxaw ci ginnaawam téye ci ndigli di bës dan ne dana dem wala du dem sëñ sëñ Maxtaar pende Jeng ne ko baña ka dem mu ne ko noona la mel mu ko wala ma joxal la ci ci ci ci yeneenu misal mu ngi mel ni aw garawuk dem go xamne ni dafa ñor ba geusam mu rot ñak geusam mu rot aw ponkal joge fale di ko dal diko ne nu muy def sëñ Maxtaar pende Jeng ne ko rututut tut ne ko la mel nah. <laughs> waaw dayoo ya am ken xamul nu muy doy bokku na ci basirou Siise moma nga xamé ni bi mi am fenwéré at di satub jaaxa Cissé jóge woon ndar jox boppam sëñ Tuuba ay mbokkam yu ci bari boole woon ko ci ñi doon waroon a dem ci géej gi 1914 ñu sol tubaab yi ne leen lim bi mat na ñu ne leen déedéet génne leen kenn dugal ko ci ndax moom daa fekki sëñ Tuuba ñu génne kenn dugal ko ca bañ ñëwee wax ko ko ne ko da ngay solu soldaar ànd ak tubaab bi dem ca guerre ba dalee na ne génn kër sëñ Tuuba yi di liggéeyale ji ab tubaab faatu wuute koo ma ko gënal hmm. woo Cheikh Mamadou Lamine Diop dagana hmm. daane is xaala yusufu hmm. euh, rabbi waxaala yusufu rabbi asijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa ila tasrif anni kayduhunna asbu ilayhinna wa kun mina jahilin daa di bind aaya boobu jox ko Cheikh Mamadou Lamine Diop dagana guddi jot mu mu mu muuru ni ni néew di muuroo tëdd ci digg kër gi daal di wàcc waaw ah. biñ xëyee gis mu wàcc mu jaaxal mag ñëpp ñu ñëw wax ko Sëñ Tuubaa mu ne kum fi mujj a waxal ñu ne ñu ñu ne ko diw de la fi mujj waxal mu woo Cheikh Lamine Diop Dagana bi mu ko wooyee na ko lu mu jox yow mu ne ko fooy wii daal la ma jox mu daal di koy liir daal di ne ah Basiru de def na li mu bëggoon kon daal ne waajal leen ko bi ko waajalee ba pare sëñ bi génnee xaajum nuuru daare ni xaaj nuuru daare ni bi jox leen ne leen dencaale leen ko biñ ko ko dencaale biñ bi biñ dencee ba ñëw sëñ bi toog di ree ñu ne ko Mbàkke lii de moom yéeme na mu ne waaw Basiru daa wax malaaka yi lu nit mës a dégg ndax bañ ko ñëwee di ko laaj kuy sa ak yooya dalee na ne ndax xam ngeen xalaat ngeen li nekk ci kaw suuf ak li nekk àdduna ak àllaaxira kan moo ko mën a def ku dul yàlla mi ñu bind <laughs> ne na malaaka yi danoo tiit ba daw mm. sëñ Tuubaa daa cay teg nag ne ko ne Basiru moomu fekk ku ko gën mm-hmm. ca armée lu njëriñ yooya te mm. ku ko gën dootu ko fa fekk ba ilay mi din waaw te dem na ba ci dayo fun fuñ denc néew da leen naan ndax bootu basiru ngeen koy denc waaw mu ne néew boobu de dana am lu ko lu ko bégloo lool te ci basiru moom la ko jëlee te dara may ko ko lu dul xaaju nuuru dare ni bañ ko dencale waaw kon xasida kenn xamul lu doon waaw am na kilifa goo xam ci yoonu murit bii da koy wax nee na day naan saa doom jàngi leen xasida yi bu ngeen ko jàngu taalibe suñ tubaay danañ ko jàng yegg yeggale yeggale leen kon ñëpp a ko war di jàng <laughs> sëñ jéeri waaw sëñ xam nga xasida da ngay gis sax gars yi ñu naan la gone yi liy jàng ci xasida bari. Mhm. da da du doy ni xasida du doy siñ bi. Mhm. yow mag ñi dañu daan jàngee xasida. gone yi jàngee wu ñu noonu xasida. wallaay wallaay am déet. Mhm. ba Mor Mor Ndiaye tomb del lu mu daan jàngee xasida. waaw junniy maraaxib. junniy maraaxib par bis. ay ñeent fukki jaali bu rek benn. sëñ bi gone yi jànguñu xasida. xasida du doy fi ne jamono ji dafa yàqu. lu mu gën a bari mu gën a baax. te xam nga li gën a kéemaan mooy mooy benn jaamu yàlla boo xam ne. ki koy def mënu koo yàq manam ñi kat yi mënuñu koo iblis mënu ko yak manam moy jenn jaamu yalla senyum xamne dara mënu senyum yak ci seigne sëñ do wax nan yamal khiyam seigne Basiru neena yamal khiyam nit di dafa mokal alquran mokal gu set bind ko top ko dundal ko ba ba faatu daanne te gëmul seigne Tuubaa neena na bu yamal khiyam ñu rocc alquran di duma ko sëñ Basiru waaye nee na sëñ sama benn beuy du nekk ci dënub kenn muy taxé di sama sama beuy du nekk ci dënub kenn muy taxé di seigne sall da wax naan maasallaa jàpp nañ ne day gis bul xulub day dooleem egg na ci lu waaye takk takk takk boo ko jàkkee woo suñu borom mu wuyu la sëñ Sani jësum jësum lu xul <coughs> dégg nañ fii mu wax ne sàllaaw xasida yi gone ñu bari dañ may dañ may kalaame gone yi naan ma mo xasida yi dañ koy yàq rek moyen dañ koy yàq mm. ma deen xamal ne fu ñu yàqee kenn du fa yàqu léegi ban jaamu yàlla nga xam yow boo xam ne mm. yow yow maamu nee nañ la fu ñu koy yàqee kenn du fa yàqu mm. ndax masi adigi ñooy la julli fu ñu koy yàqee kenn day baax benn jaamu yàlla boo xam ne da nga koy yàq yàq gi nga koy yàq muy muy defar amul mm-hmm. sëñ Moussa xasida daa ko wax ne ko xasida yi fépp fu ñu ko yàqee maanaam lépp lu fa defaru yàq gi ñuy yàq xasida moo ko defar loolu kenn loo xam ne ne duñu ko defar duñu ko yàqee muy defar lu ñuy defar mu yàqu kon loolu mooy waral li ma ne liggéey bi dafa set ci lu dul iblis ak lu koy yàq yow mi koy jàng mënoo koo yàq ñooñu amuñu ci yoon waaw moo tax fi ne xasida maanaam de pour defar fi mu ne ki gën a tilim ak ki gën a doy de ak ki gën a salte ak ki gën a bon maanaam bul am jafe-jafe jox ko xasida boo bëggee mu baax ak lu mu mën a mel bu ko bàyyiwul foofu da koy jëkk jële ba noppi da koy setal te gis bis mu noppee ci moom boo ko xamoon daaw xawaat ko rek di nga xam ne ah bokkuñu de dooguma la maam mhm. sëñ bi day wax naan waj al kitaabati ya misral xajji mhm. wa sawmi wa salaati ahli najji mhm. defal sama xasida yi mel ni aj mel ni woor mel ni julli waaw loola bu ko nit déggee am na ci ñoo xam ne buñ ko déggee fa saasa da leen di jaaxal jaaxal goo xam ne dana dana dana dana dana jéggi dayo waaye ci ci lu wér lan la aj di def lool lan war a laaj aj lan lay def ci jullit bi loolu lan war a laaj suñu borom dafa wax li aj di def ci alxuraan dafa ne alxajju ashhurun maalumaatun fa man farada fiihinna alxajja fala rafasa wala fusuuxa wala jidaala fil xajji aj dafa màgg màgg ba nit ki koy def yi wa daganoon yëpp dañ koy dañ koy mujj xaram ba ci tooñanteeg di yéejeeg yooyu yëpp da koy da koy aj da tere te loolu nekkut ci aj rek la xaram waaye waxtu yu nekk loola dafa xaram daa doon lu baaxut nit ki war kaa bàyyi léegi nag ni ko aj di defee ci nit ki na ko sama xes dëgg yi defee noonu ca moom wa sawmu lu yàlla wax ci koor mm. ah xad aflaxa man tazakka ak ya ci aju yëpp léegi ni ni ni ni nga xamee ne koor ci boppam day sellal nit ki mm. di di di ko may mu doon koo xam ne bu ca jógee mm. day xam ne yàlla rek a ko moom doon koo xam ne nii day mën a muñ lu ko dal lu ne na ko xaside gi di def noona na ko koor di defee waaw wa salaatu lu yàlla wax ci julli na salaata tan tanha anil faxsaayi wal munkar gis nga koy jàng xaside di def faxsaayi munkar kon la julli di def ci ca ca ca ca nit ki loolu la xaside di def ci nit ki te teewut nag yooyu yëpp bu ci nekk di farata war war mm-hmm. loolu nag niñ ko mooy la la sëñ Mor Kayra waxoon ndem julli doy na ab sëriñ del julli yow te am sëriñ am ñaari pay yu lay jariñ ndem xut bu teew sikar loolu kese la waaw waaw fi mu fi mu ne xam nga ñun maam dañ koy miin li fii di doole ji ñun duñ ko xam mm-hmm. ndax dañoo ne si biir mm-hmm. waaye wallaay la xasim gis nga ab tubaab bu doon bu doon leneen ñëw bu doon murit kooku moo xam doolee xasida ndax gis nga ni koy def di gis nga am na sama waaju nekk France dafa wax ne mm-hmm. moom tubaab bi dañ ko ne ñoom leer yëm ci xasida mooy lu tax ñoom leer gi attanuñ ko li tax attanuñu leeru xasida mhm. ndax sàng mi koy maam zawxo bi fi bi ci nekk mooy yëg-yëg bi ci ne mhm. fi ne maamul ñaata murid ñooy toog ñu jàng xasida yu daanu li nga daaneel lu mu doon kenn xamu ko te li gën a kéemaan mooy xasi xasida yi suñu too wax na ni mhm. képp koo koo dégg ba daanu nee na sàllaaw sàllaaw dañ koy dugg rek waaye taxoo may wax taxoo maa jug ndax nee na ba ma koy bind yàlla ak yéen moo tax moo tax may wax léegi mi nga xam ne sa yoon newu ci li ma naan nga dem ci ko doon tëll mu daanu léegi yow ñamala bi nga xam ne moom daa dégg téelliwo daanu ak ñamala bi ñu diir moom daanu ku ëpp doole ana kan tiir bi gën a dal xanaa ki ñu dóor waaw moo tax moo xasida fi mu ne wallahi la azim ni muy def murid yi ni muy def yéen moo ko moo ko raw hmm? barke sëñ Tuubaa ko jàngee hmm. bi ma koy soo ko bind li ne buñ koy jàngat noonu la koy def day présent hmm. saa buñ koy day mel lu yees moom moo tax lay fi indi fi ne man man yaa mom dama ko yir ndax xamna du noppul ndax sa bu xëyee mourid yi ci mom lañuy xëy ci mom lañuy gontu ñaata mourid ñooy xëy di julli ci yéen sallallahu alayhi wasallam kenn xamul ko yàlla sumu tam yàlla tam mom du son sax way du noppul ndax tamit mom neena na képp ku julli ci yéen mom mu fay la mais yàlla bo tax du noppul daf ni inna allah wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman manam bako sun borom waxe amoo fenn ci alquran fo gisee sun borom julli ci yéen bi waye da ko wax waye mom mi ko wax moko defat yalla bam ko waxe hmm. man yalla dina julli ci yent bi ak samay malaka hmm. mo tax inna lahu mooy sëñ Tuubaa hmm. wa malaaka doo ñooy taalibe yi tax ta talibi yi sëñ mo bin talibi di ci xëy di ci gont ay bob lolo koy firmu jeex inna lahu wa malaikatu mo tax sëñ Tuubaa ci bob mo waxon waxoon te defuko mo ñewat dal di bind ci yene salam ay salatu yo xamne wajal madahi lo wa salam fa waxale madat di ma an wa dawat bind ci yow sa ay salatu wat yo xamne sama xasida ginnu dare ni manam lepp lu way di julli ci mom bi ko doole lépp lu waay di ñaan bii ko bu doole wasal wasal yaa mu salaatan taxlu kulla salaatin bi salaamin yaxlu nga xam ne yooyu yëpp day dëggal aay lay dëggal waaye mi ngi ko bi def noppi ba bàyyi ko yi ñoo ci de moo xëy di yi ni ñuy def bu ñu boo julli ci yow benn yoon mu boo julli ci yow téeméeri yoon mu julli a duñ noppal ngi fay taalibe yi léegi pay googu rek fi mu ne si Mamour maanaam ko sëñ Sam damaa dégg mu wax ne benn ma faatuwul bisiri sëñ Sam laa dégg ci làmmiñ mu ne benn ma faatuwul bisiri man njort naa ne képp ku ko jàng ba noppi buñ la ko fayee du xaj ci kaw suuf yoon benn ma faatuwul bisiri waaw ndax saa bu xoolaa yarim la wax yàlla nee na xasida gi yoolam bu mu dox maanaam boo ci xasee jàng benn yow bu la neexee wallaay la xasim bul jàngati mm-hmm. nee na ba keroog ngay faatu chaque jour dañ lay dañ lay alimenté maanaam ab compte boo xam ne moom boo ko xasee ubbi ubbi ko rek yow toog yow maanaam lañ cay def moom yow sa yoon néew ci loolu mooy salaatu ala nabi mm-hmm. moo tax wa saabu xoolaa yarim waaye yemu ci wa xam leen yow tadaaru kii jamia maa faatane mi la ko yor yaa samia daane sax boo ko jàngee ñi la jiitu woon te dàq jaamu yàlla mhm. lañ daan jaamu yàlla yëpp daraw la xasida gi da koy dab dabaatal yow da la koy may yow li nga xam ne ñoo ñoo la ñoo la rawoon da la koy may mais loolu man mbind ci àdduna nga gis mu mën loolu amul man mbind ko gis amul amul ak mbind moo xam ne day jàpp doomu aadama da ko defar mhm. maam Thierno dooguma la te te te te gis nga noona mu mel noona ci niñ koy defalee yonent bi salaa sallam ci waxtu woo wu nekk te amutug àpp mhm. noonu la yonent bi war lool suñ waa ne ko say taalibe maa man maa taxaw mhm. warul la na ñoom kenn du ci texe de Hmm. loolu boo demee ci wa iza xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsen minha hmm. bay xasida googa da nga ca fekk bayit booba noonu waaw nga xam ne kon yonent bi it mu ngi liggéey ci ñun liggéey goog hmm. moo tax ku ñu gis xam ne ñun ñooy ñooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Jéeri eh, ni ni ni dellu ci ba sëñ Moussa waaw waaw moom mu ëkkatee bi waaw ma woog moom dañoo dañoo mu dellu siwaat waaw ñu ngi ñu ngi di kas siyam di waaw waaw man sannani xayra qadimil Mustafa فإنني أقدم بمصطفى من ظنني غير قديم مصطفى فإنني أقدم بمصطفى من ظنني غير قديم مصطفى فإنني أقدم بمصطفى أقدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من ظن أنه يكون أبدا مرضيه بما كقمة بدا فغر الضلال والإضلال ينقاد لي من به الحلال مدحته قبل لدى لبرولي مدحه وانا ام مثلي كل ولي madaxtuhu madxal la daama yomba maxaamu mm. yóbbiya wa kafa zamba mm. madaxtuhu inda unaasi galwa madxan kafaani alhida walbalwa مني إليه قمة قد لازمت روضته إلى القيام أزمت رضي عني سبت الجيلاني علي رضوان الذي أعلاني رضي عني سبت أبو الحسن علي رضوان يقلد الحسن رضي عني سبت تيجاني علي رضوان مبيد الجاني رضي عني الخلفاء الأربعة حط رضا المقربين المتبام من لم يكن هني يرضى فالكريم ردي أني رضا ليس يريم جذا الإله المصطفى خير جذا كما تقبل ووعدا أنجذا صلاة من كرمها يلقاني على الذي دون المراء القاني تبارك الله Sim, bi. waaw kay yooyu mhm. rek daanaka man sax moom déglu bi damay neex lool wax dëgg yàlla waaw comme fi mbokk mhm. bari ay ay ay mbir boo gisee li jaaxal gaa yi mhm. mooy fi mu ne boo ngi sarian boo ko doon jàngale fi ne euh, faratay julli da ngay fukk ak juróom la rek mënoo cee yokk dara <laughs> bu dee koor tamit mënoo caa yokk sëñ bi nag day géej goo xam ne booy waxtaan ci xasida yi fii bu suba kii da ciy xam dara kii da ci xam dara sëñ bi te du jeex day koo xam ne euh, lépp loo wax ci moom rek li mu waxal boppam a ko ëpp te li mu waxal boppam li ko yàlla may ko ëpp mhm. te sëñ Tuubaa li ko yàlla may tuuti la ci wane waaw xam nga xasaayit yi <laughs> comme ni ko mbokk yi waxee sëñ bi dafa xam ni de leen nàmp si ci man ndax damay jaboot yoo xam ni du ma jeexal am soow mm-hmm. daan batt bi ñuy nampe ci man mooy sama xasida yi mm-hmm. moo tax mu ne li ma leen di defal du ma leen ko defal ci alxuraan donc mm-hmm. ci sama xasida yi laa leen koy defal moo ñuy jàng alxuraan di ubba ko ubbi rek waaye boo yëkkatee ba bi te dara du leen ci jox kenn ci <laughs> ne ko ne wallaay bis ni ki tey def ak dindi fal ak foll ndawal sama borom moo fi ñëw na ma nekkutul sa loxo roof ko ci xasida te ñëw ñu di yaali waaw sëñ seex Sarr Ndiarème di sama juróom wér na ci moom ko dégg na wér koroog la waxee na kenn ku ne ci yéen na ma indil xasida indi ma xasida ya moom ñu <laughs> toog boof soni xasida <laughs> mu ne dama leen a wax xasida yi fu ñu mujjee ak ku faatu ci yéen <laughs> Mamour yaa garaaw xasida gum fonkoon doon ko jàng wala boo xam ne fonkoon doonte ne sax jàng koon waaye doon na ko wormaal danañ soppil ay jëmm gunge ko buñ demee ba denc ko ba wonee gannaaw ba dégg teppet teppeti dal yi ña ko doon denc ñu ne yoxoos ci biir bàmmeel lépp luy teraanga ak lépp loo xam bëggoon na ko te kattan àggutoon ci am ko danañ ko ko indil suñ demee ba nga xamante ne bii nag bisib dekki ba jot na mhm. ñu jiitu xasida yi jiitu ñu topp ci yéen mais ba ci seen kanamu borom mhm. da ngeen naan cell xasida yéene ni layel la mhm. ngeen di mujj a dégg daal mooy dem dugg la <laughs> la wax loolu la mbir kon mbir noonu lay demee foofa noonu lay demee foofa loolu leer na sëñ maam Thierno xam ne wax nga dëgg xam nga sëñ maam moo tax <laughs> moo tax sëñ bi waxoon ni jamono taqoo xasida jaalibatul maraaxib mooy gën taqoo man ndax lim man ci nit ku dul man mënuñ ko ci te man uuma jot <laughs> waaw te man bu boobaa du ma am jot waaw moo tax xasida yi hmm. dafa doy waar hmm. dafa yéeme hmm. te it nag euh, adduna nit defu fi lu gën a rëy bégloo rasulullaahi te saa yoo koy yëkkatee rek sëñ Tuubaa nee na boo bëggee gis sàkkariyaa rasulullaahi tuddal sama xasida mm. ida katabtu tashama shujaau mm. wantajaat li xaafidin aw jaaw waaye yëmu ci loolu rek mm. yàlla da ko ciy bégloo ma bu tàmbalee rek yàlla ni ko ahmadu kat tàmbaleeti na <laughs> nee na moom mu am ca mbégte moo xam ne ci mbindum sëñ Tuubaa rek la koy am kon yow baaqi bi xabti karamatan mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ba ca topp mooy nee am na feneen bu gën a xorom nee na saa saa yàlla moo may kobas ni ma ahmadu tam nee na booba yonente bi day reetaan mhm. nag moom reetaan nag xam ne addaxa yàlla moo ciy reetaan loo rasulullahi addaxaka rabbi mhm. rasulillahi bi xati mawdii allah waaw mi ngi noonu wax na ni sama xaside yi mhm. bu ci waay am mbaa nga mokkal ko bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ñi jaam ñëpp taxaw buñ la dugalee ci si biir bàmmeel yooyee nga aman fonk ko te daawu ko jàng rek nee na bu booba ñooy soppaliku ay jëmm ci sa biir bàmmeel di la wetti ëllëg taxawaay boobu yow ma yu doon daa bu yàlla wootee ñoo lay niital. nee na bu jam ñëpp dajewee nga war a layeeg sa borom ñooy doon sa avocat waxal la ak bu ñuy peese jëf yu baax yi ñu doon jëf ju dis gan ne nongu ci sa jëf ju baax diisal ko wa daal di koy diisal. nafat qasaa'idi l-la'iin wal 'iyal. mughniyatun 'anil xisaabi wal kiyal. xasida day jëru rasulullahi. waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp waaye daa bindu. Mm-hmm. bindul. بندل يلا دنيكو يو وخم بندوا أي ويسق دكو كخملو وما علمناه الشعر وما ينبغي له نقم القرآن زخ ما أنا ويسق بسم الله ما خم الواي لا نظر نقم نقم لكن الله لا بيمسك موني كديمبلي موني لا ينن بداول واي تحمني بندل حرف moom lañ jagleel Serigne Touba ba muy taalifal Touba. la xasaana daan wax gën gi yonent ak Kaabu la Seex Bamba def ci gis bu jébbal ko waa Touba. Mhm. fa Kaabul wa xasaanu wal bu Seyri bañ demee la Seex Bamba wax yonent lu tax ñëpp ñëw Touba. arab dootu way ngir moom. Mhm. te lu mel ne koy ajam bi lépp xam ne jébbal nañ sëñ Bamba moom Touba. waaw gërëm loo nga rabbul arshi ngir taggi Moustapha. te wedam loo nga taalifkat ya est-ce que Serigne Touba. waaw ah jërëjëf. maam Thior looy tàggatoo. <laughs> man de xanaa moom daal sëñ bi daal mi ngi noonu rek. waaw mel na ni moom de xanaa doo xam doo xam fooy tàmbali ak comme du ci yeex. moom da nga ne rek boo ci boo sonnee. bàyyi bàyyi nekkaat man daal wax dëgg yàlla man de xam naa ci li may tàggatoo. Mm-hmm. mooy murid daal war nañoo góorgóorlu ndax koo xam ne. Mm-hmm. Euh, euh, maanaam àdduna bépp dañu ñëwoon siiw am ko. Mm-hmm. bu ko suñu borom defee am nga am ko maanaam war ngaa bàyyi war xel sa bopp ndax suñu mun dafa am loo am solo lu mu waxoon euh, jamono ji yàgg mooy bi ko suñ bi defee muy jëriñu liggéey liggéey bi ndax daa wax ne ñumur dañoo baaxoo joxe mhm. Mhm. waaye neen kuy joxe da ngay lu baax mhm. daana kon nañ defar suñu jëmm yi ndax dañ ko fas yéene jox suñu tubaa waaw kon loolu nañ koy bàyyi xel ndax euh, bëgg gi suñ tubaa ma ñaan nañ ay maanaam ñaari minute rek ci sëñ Muntaxa waaw xam nga sëñ Muntaxa bëgg sëñ tubaa xam nga sëñ Muntaxa fi mu ne li tax li tax du du du nee du neex waxtaane mooy fi mu ne lii daanaka ku ko xam miin ko ci moom kaala gu ñuul waaw ndax day wax naan Cheikh Rafal rek la teg bëtam ndax sëñ Muntaxa sëñ bi ndax nit ki day am lu muy wax ak lu mu du wax waaye pas-pas yu biir la gis nga nee na fekk mi ngi yor kaalam googu nee na day fedd mooy mooy wane ne laxasaay mi ngi koy feddali sëñ Tuubaa te sànq nee naa la sëñ Tuubaa ci boom boo gisee maanaam li tax kenn du ko raw ci yent bi dafa wax ne axdimuhu ilaa duxul janna loolu mooy li ci man maanaam liggéey bi ba fi sëñ Tuubaa gi zaayir ba fii may wax ak yow sëñ Tuubaa mi ngi bind xasida laa wax di di di di manam di di di di sad def lepp di maas ba fi may waxe yow seigne touba bind manam dafa wax ne xaadimatul munaajaat bil khat la wax sama mujjé ak dayaalee jeen ci bind lool may biñ mujjé mujjee gis waaye ba légui mi ngi bind ndax mom liggéey am liggéey jeexul te bind mi dafa bok ci liggéey ba fi may waxe yow mag ñaangi dajé di waxtaan di nan café di waxtaan seigne touba di bégee ndax ñom lool moy seen liggéey da dañu jeex ñun tamit liggéey bobu ci lañ né mo tax fi ne seigne Muntaxaa dafa tegtale yoon ngaw moy liggéey seigne touba fi fek ñing fi né du jeex kon fii yaa ngi ciy nekk da nga ciy ne moo tax moom moom laxasaayam boobu foo toll mu koy yeesal mm-hmm. moo tax bi mu fi bi mu ko suñu tubaab defee defee mm-hmm. nga mm-hmm. dégg lu mu lay wax danaan la yéen ñi jébul si de maa ngi leen seedalaat sama jaayante ak suñu kon loolu mooy foo toll maam day def benn taj ji di di di yeesal jaayante ma dégg suñu tubaab loolu mooy ñu toll bi saa bu ñu xëyee war nañuy yeesal suñu diggante ak suñu tubaab ak liggéey bi ndax suñu tubaab dafa wajjëxtu li mu taari kun la yow mi la wax xidama am daayin azalalom bi mhm. ila nabi wajeetu ku lalali mhm. xidam daayin ajal ajal na ajal na li kon loolu mooy man liggéey moom nee na suba ngoon guddeeg bëccëg dama mhm. ci nekk ne du sëñ Tuubaa bakkaar la ci moom man loolu ma jàpp kon ñu ngi murite waaw da murite te loolu daf ja ndax si alaaj baara bi mu toogee xalifa séntu weer gi mu ñëw njaarim mm. sëñ Muntaxa bi mu jëlee kat di wax mu at mi njëkkam daf ni mom aladji baar li ñëpp bëgg te tam jaxé mom la doon dal na mom mouride la ah te sànq wax na la ko mouride dafa jaxé sëñ Tuubaa la wax naan sàllaa mooy sama ciat ndax bu ñuy lim mouride yi duñu ci bolé sank sëñ Jéeri wax na ko kon lool ñu ngi jëgëlu jégal tay santat tay ñaan sëñ Tuubaa mi defee mouride mu def ñu ay mouride te bu ñu jeex mu def ñu ay sadiq waaw kon ñu jëgëlu bu baax kàddu yi tey sant bu baax sëñ Maamu tubarkalla sëñ Jéeri looy tàggatoo waaw xana sant yalla baaxa baax ci mm-hmm. jotaay bi di ñaan sëñ Tuubaa defal ñu tawfeex yu bare bare mm-hmm. di ñaan daal euh, suñu bëgg. du mhm. bu mu lenn lu suñ lu ñu bëggit yàlla nañ ko suñ Tuubaa bëggale. Mhm. waaw mhm. sant nañ bu baax a baax a baax ci jotaay bi. tubarkal lool ci ci teewaay bi. ndax suñ Tuubaa daa doon jëmm joo xam ne. ñun ñi ànd ak moom rek. war góor góorgóorlu bu baax a baax a baax. ndax ànd ak moom daa yombut. koo xam ne moo la tànn fa mu la tànn. boole la ci boppam. am na lu muy séntu ci yow mm-hmm. loola la sëñ la Lahad waxoon mm-hmm. ne ku ko ko tax doon mm-hmm. yaa ko taxawu fenn waaye ku ko ko tax a tëdd defalut taxawoo ko fenn bu ñuy wax moo la defal lépp waaye defaloo ko dara loolu it war nañ nañ ciy góorgóor bu baax a baax waaw di xar suñu tànk tubéy liggéeyal sëñ Tuubaa ci suñu jëmm ku ñu gis xam ne taalibe sëñ Tuubaa lan balaa sëñ jaay xasida maa ngi koy bu baax a baax a baax di ko sant day wax naan na murid yi seede suñ suñ suñu doon taalibeeg sëñ Tuubaa balaa ñu kaa sëñ Tuubaa séeréer waaw ku la rek na xam taalibeeb sëñ Tuubaa nga balaa sëñ Tuubaa ñëw moom na ñëpp xam na taalibeeb sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa waaw am dafa am ku ñu Cheikh Ibra daan na ko hmm. diw di mu mbubu hmm. la ah, moo la gën mbubu de hmm. waaw ngir loolu muy wax rek tubaarkal la <laughs> jërëjëf sant nañ baax a baax la sëñ eh, am di waaw di jaajëf sëñ bu baax a baax di sant bu baax soxna Maam Fatim Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Fadal di ñaan suñu borom yàggal ko fi nga xam ne lii ñuy nam na bi Eh, ginnaaw yàlla ak moom la mhm. mooy nu yéen kat waroo leen di noppi dangeen ngeen di waxtaane da ngeen war di waxtaane mbaaxu sëñ Tuubaa gi mhm. nga xam ne loolu moo ñu yóbbu ci lii mhm. ñu ngi koy sant bu baax di ko ci delloo njukkal di ñaan suñu borom yàggal ko fi muy ko bëgg sëñ Tuubaa itam euh, di sant ñi ma bokkal jataay bi ma mm-hmm. euh, maam Thierno Ma mm-hmm. ak Serigne euh, Djili Diouf wax dëgg yàlla am nañ mbégte bu baax di la sant bu baax a baax di la gërëm comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. ñu gën a jox war ma sëñ bi naa sëñ Daaru Asan Njaay daana wax ni malaaka mi ma maa yalfisu min qawli illa ladayhi raqibun atibun malaaka mi nga xam ne day bind lu baax ak lu bind lu bon dafa xam ne mii bind lu baax dana bari lem déet waaye bind lu bon moom du bind dara dama koy teral sëñ Tuubaa kon ñun foofu rek la ñu war a jërëjëf sëñ maam jërëjëf sëñ Amdi jërëjëf sëñ maam eh, Thierno Mar eh, jërëjëf eh, sëñ Jéeri Waadaan Diouf moom sëñ Jéeri Waadaan Sogo jërëjëf mbokk yi àndoon ak ñun wala mboolem jànkatu xasida yi fi teew yëpp sëñ Jaga Alfaro ak sëñ musafa di leen jaajëfal bu baax baax di ziar ak a ñaanal Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké suñu borom doon la ko fa yàggal bu baax a baax ba lim naal ngir liggéeyal ko sëñ Tuubaa lépp yàlla na sottee fi loxom ba mu sumb yeneen di ñaanal baax a baax Serigne Sidou Mokhtar Mbacké suñu yokk ay leeram taas ñu ci mu yàgg fi lool ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp waaye di ziar baax a baax sëñ Abdou Samad Mbacké moom Serigne Soy bu Mbacké di ñaan mu yàgg fi lool te wér waaye sëñ Amsatou Mbacké moom Serigne Soy bu Serigne Fallou moom Serigne Soy bu ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziar leen ñaanal bu baax baax waaye sañ Modou Kiimaan moom sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ñu ngi koy ziar bu baax sëñ Moustapha Xasaayit waaye di ziar bu baax seen mag seen kilifa sëriñ Cheikh Mbacke Daaru Rahman di ziar nga xam ne ñoom itam eh, seen pas-pas ak seen yéene mooy fa seen maam tegoon tànkam rek ñu teg seen tànk yàlla leen fi yàlla yàggal sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Hakim eh, fàttewuñ ko a baax di ko ko yàgg ak wér sëriñ Bachirou moom sëñ Abdoul topp ci jotaay waaye di ziar baax sunu yaay soxna Solu Xum moom murit nekk fii ci kuréelu ñaar rakk yi di ziar bu baax a baax itam euh, sunu yaay soxna Fan Mbacke Niass ak soxna na Jong ñoom ay murit lañ ñu gëm sëñ Tuubaa te bëgg ko saa su ne dañuy bàyyi xel seen jotaayu murit di ziar mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp ak ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun ci wàllu liggéey bi ku ci mel ne Sadikh Diallo ak euh, ñu ngi koy ziar bu baax baax sunu Baye Fall bi waaye di beral nuyu ak ziar sëñ Aline Badara Ndim di jaajëfal bu baax sëriñ Ibrahima Guèye ci liggéey ak Bay di waaye di beral ñaan nag di sàkku ci mur yëpp ñu ñaanal sëriñ Aline Cuun mu yàgg fi loolu te ndax moom lii koy dundal ku bëgg sëñ Touba la jotaayu murit moom moo ko xalaat moom jotaayam la ndax moom bañ lii mooy jotaayam moom sëñ Touba bëgg ñu ko waxtaane te ber sëriñ bi comme ni ko suñu borom def ñu ngi ñaan yàlla taxawaay boobu la maam Cheikh Ibrahima Fall taxaw ci yoonu murit mooy ber sëñ Touba loolu mu la ku gëm ndax moom nee na sëñ Touba Cheikh Fall jënd jëm la leen jàppee te moom loolu lay dund ci sëñ Touba moom fa Cheikh Ibrahima waaye nag maamam ñu ngi koy ñaanal suñ borom yokk ay leenam tas ñu ci barkeem muy borom ñetti sant yi Njaay Jóob njang la ko maam Cheikh Ibrahima Fall tudde woon loo ngi ziar bu baax a baax sunu yaay soxna maam Jàllo Guèye di ñaan yàlla mu yàgg ko fi lool te wéral ko moom itam ku bëgg sëñ Touba kuy roy Ibrahima Fall di ziar yëpp di leen jaajëfal baax waaye di ziar baax Cheikh Anta Niass jàpp na ci liggéey bi moo nekk ci rési bi ak sëñ Dame Thioune ak mboolem mbokk yi ñu doon topp ci jotaayu murit di leen jox dox daje beneen samedi incha allah ak ci yeneen i invité ñu ngi sant bu baax di dem ak Serigne Touba di leen bàyyi Serigne Touba di ñaan yàlla na ko Cheikh Fall daan ñaan ñu mucc ci ndokk te forub ndokk wasalaamu aleykum wa rahmatullah